wala do domam bi nga xamante madi mu ngi tuddu soxna si mu ngi tuddu madina kabola langli mu ngi ne bokk ci xadara yi itfa bu atanta dafa dafa wàññeeku di ko jaal di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm yàlla yesa yërmali ci moom amin ak mbooloom jullit ya mu nekkal fofu ci bazak mo xam ñam fa fekk la wala mo xam ña koy fekk yi ci gannaawam yalla tek leen ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di bëgg wax rek ne képp ku nga xamantene bëgg nga wote nga bëgg jaale bu defé man nga wo ide Cissé man nga ko wo ci 404 cent 34 deux 404 246 34 43 bu ñu jugee ci njaal mi nag xanaa ah, Seydina Cheikh dama bëgg dugg tuuti rek ci nga xamante ne il faut da koy doxal saa su ne ñu daal di tàmbale waxtaan bi euh, incha allahu rabbi comme nuñ ko de ni ko il di defee semaine bu nekk classe mm-hmm. alquran yi boo xoolee def mu ngi tàmbalee dimanche dimanche diggante une heure ba trois heures classe boobu en wolof la euh, classe yi nak dañ ko dibëree ci ñetti pàcc moy ki nga xamantene mu ngi dogo tambali ak ki nga xamantene jangon na mu bëgg dab mu bëgg dabat dabat dabaat fa mu bayé won ak ki nga xamantene xey na jangam xawna sori astu mm-hmm. bobu moy mooy classe dimanche bu ñu jógee ci classe su dimanche bi ñu dem ci classe su alcorane samedi bi classe su alcorane samedi bi mu ngi commencé 1h ba 2h30 bobu nak anglais lay ak wolof comme kàlla xale yi fi nekk ci kàllaama anglais boo xoolee fi li ñu juddoo kàllaama anglais la ñu ëpp li ñuy waxee waaye tamit ci ñetti classe yooyu tamit eh, hmm. dafa am tamit kuy doog tàmbali ki nga xamante ne day dabaat ak ki nga xamante ne xëy na njàngam xaw na sori as tuut boobu mooy classe bi bu ñu jógee classe dimanche nag mu am classe mardi bi classe mardi bi boobu huit heures la ba dix ñooñu nag ñi nga xamante ne nag seen jàng dafa sori lool lool lool ñu nekk ci classe yooyu sax ñoom ñooy jàppale ci sëriñ bi ci nga classe samedi yi ak di ak di dimanche jàngal pour euh, ñi nga xam euh, ñu nekk ci classe yooyu classe yi nag boo xoolee gu mag mu ngi fa am na góor am na jigéen am na am na ndaw te ci classe yi li ko tax a jóg rek mooy mokkal alquran fiqh am na fa xadis am na fa tafsir am na fa tajwid am na fa séré yi am na fi mm-hmm. euh, bu ko defee ki nga xamante ne nag dafa bëgg bokk ci classe yooyu bu ko defee mën na daal di jokkoo ak ku mel ni euh, soxna nday Ndeye Amy Sarr bu mm-hmm. ci 401 261 27 01 wala mu jokkoo ak ku mel ni soxna maam Adama gi ci 401 688 56 17 wala mu jokkoo ku mel ni euh, Serigne Cheikh Diallo ci 267 8 688 89 80 wala mu jokkoo ku mel ni soxna Jeewo Ba ci 206 931 18 95 wala it mu jokkoo ku mel ni Sëriñ Jibril Taw ci 614 301 40 82 loolu mooy li nga xamante ne mooy euh, classe alxuraan yi bu ñu jógee ci classe alxuraan yi la ñuy def mercredi bu ne diggante huit heures et demi ba dix heures demi lépp li nga xamante ne ITFA da koy ci programme moo xam. la fa ITFA lu muy liggéey ci at bi. mercredi bi ci réunion yooyu la toog ak comité yi waxtaane programme u ITFA xool li koy avancé sottante xalaat bu ñu paree daal di koy jébbal sëriñ bi pour benn final accord bu ko defee ñu ma ñu mën a eggali liggéey bi wala bu dee lu bees ñu mën a tàmbali liggéey bi incha allah di ci woon nag mboolem euh, membre ITFA yëpp euh, euh, réunion yi mercredi yooyu bu ñu jugee ci réunion yi mercredi nag dafa comme ni tey li ñu tuddee guddu àjjuma guddu àjjuma nag looloo ko boo ko gisee lu bees la li bees li ko indi mooy comme ci gannaaw pandémique dafa amoon ñëpp toogoon seen kër ñu daan def jeudi ëttu kër di àjjuma ñu koy def ah, xadara ci juma mais comme ñu léegi ni ñi dañu dañu dellu ci seen eh, yite yi comme feebar bi xaw na wàññeeku léegi ñu ne benn jeudi rek benn jeudi jour la ñuy jël ci semaine bi ci rajo bi ñu tuddee ko guddi àjjuma guddi àjjuma nag euh, li koy indi rek mooy dañuy def jeudi bi bu ñu waxtaanee li jëm ci kër gi maanaam lépp li jëm ci sociale wala li jëm ci santé wala li jëm ci li nga xamante ne nekk ci euh, euh, immigration ñu mel noonu la ñuy invité ñu mën ci waxtaan loolu la ñuy waxee loolu la ñu tuddee euh, ëttu kër nag bu dee beneen jeudi bi nga xamante ne dañu indi ustaas wala imam pour laayante biir boobu guddi àjjuma boobu dañuy indi ustaas wala wala koo xam imam la wala ku mel ni yow Seydina Cheikh ñu daal di waxtaan laayen laayen ci biir ci benn ci benn waxtu wala ci hmm. benn waxtu ak tuuti bu ko defee képp nga xamante ne am na lu muy laaj mu mën te mu mën a laaj waaye boo xoolee dis bi passé li dal maanaam waxtaan bi sori na sori na foo xamante ne nit ñi amuñu eh, amuñu woon sax temps pour laajte te pour bañ mu jàllaat trop moo ñu indi moo tax ñu ne nañ ko nañ ko eggali benn yoon incha allahu rabbi donc lolu moy li nga xamantene mom lañuy def mom lañuy mom lañuy def euh, jeudi léegi mu di gudd àjjuma te ñu li nga xamantene ne am li jëm ci jeudi la parfois di nga def jeudi bi ëttu it fa beneen jeudi bi nga def guddi àjju guddi aljuma waye xolal da ngay xol dama joxe exemple ñu ngi jugu ci wéru al muxaaram bo xolé wéru al Muharam digënté fi tam xarit di yexé Ah, ah, ah, eh, eh, di dix jours la ci diggante bi eh, su dix jours la ci xam-xam bu gàtt waaye waaye ci neuf jours yi am na ni nga xamante li tax tamxarit ñëw ak ak ak li tax tamxarit ñëw lan moo xew ci diggante bi loolu yëpp loo xamante ne xëy na li ñu war a la donc boo jàppee ne jeudi bii di ñëw xëy na ci loolu la ñu mën a loolu na euh, ñu mën a waxtaane li nga xamante ne moo jëm ci euh, ci tamxarit ak li ka li ka li ka tax euh, li tax tamxarit yegg incha allahu rabbi lu bu ñu jugee ci loolu tamit mu am li nga xamante ne ITFA da ko yàgg doxal ba ITFA ba muy doon ITFA ba tey mu ngi tudd IBREFAN IBREFAN bi nag li ko tax a jóg mooy ki nga xamante ne day may joxe exemple njaal njaal bi ñu def léegi ki nga xamante ne mu ngi fii ci bokk ci a ah, soit moom mu génn àdduna wala njabootam génn àdduna ñu war ko jébbal Sénégal wala moo xam Gambie la fa IBREFAN bi li ko tax a jóg dañu ne rek ne boke boke boke adere bu fekke ku bes nga da ngay joxe 100 dollars 100 dollars bi da ngay japp ne 40 dollars bi moy sa fee registration fee moy li ngay fay pour registrer sa bop 60 dollars bi mom ngay joxe at bu nek pour maintenir sa pour maintenir sa membership bobu ci ibrefon bu ko defé ibrefon bi kep ku ko xamantene bëgg nga am lo ci laaj man nga wo kumene hash pap ndjay ge ci 502 876 67 69 wala nga woo ku mel ni sëñ Cheikh Dial ci 267 688 89 80 wala nga woo ma man ci 978 856 54 01 wala it ki nga xamante ne tamit jàpp na li li ñu wax ci ni ñu euh, boo bëggee dugg ci Ibrahima bi mën nga daal di dem ci zel bi wala nga dem ci cash app bi bu dee zel bi Tijaniya Foundation at gmail dot com la bu dee cash app bi da nga def dollar sign ITFA USA ñoom ñaar ñëpp mu ngi tënku ci benn numéro téléphone benn numéro téléphone bu ñu tënku moo di deux 202 763 52 53 donc loolu mooy li nga xamante ne moo di Ibra Fane bi xanaa aussi tamit di fàttale tamit ne euh, juma ji zawiya bi ñu jëndoon ñu ngi ITFA mu ngi jël donation ba léegi te donation yi tamit comme ni ñu ko waxee rek zel bi la zel bi la euh, euh, Tijaniya Foundation Tijaniya Foundation at gmail.com wala nga dem ci cash app bi dollar sign ITFA uh, ITFA USA wala boo tapé numéro deux two o two seven six three five two five three bu ko defee rek nga uh, di nga def soit zel bi wala cash app bi nga mën a def uh, seen donation ci li nga xamante ne moo di zawiya bi bu ñu jugee ci loolu bëgg fàttali nit ñi aussi tamit ne gàmmu yi ubbi nañ ko gàmmu yi commencé na te boo xoolee euh, bu ñu xoolee euh, nu mu tuddati waa Memphis ñoom ñu ngi waajal euh, waa Memphis ñoom ñu ngi waajal gàmmu waa Detroit tamit ñoom ñoo ngi waajal waajal gàmmu waa New Jersey ñoom it ñu ngi waajal gàmmu gàmmu Memphis bi donc moom mu ngi nekk samedi le 22 vendredi le 21 juillet ak samedi le vingt 22 juillet incha incha allahu rabbi Pour euh, bu kii nag euh, Michigan saint gàmm mu ngi euh, vendredi 28 juillet ak samedi 29 juillet. juillet à New Jersey saint seen boss le 25 août ak le 26 août Inch'Allah, allah rabbi bu ko defee nag oustaz loolu mooy li nga xamante ne programme bi it fan li ak gàmmu yi yi nga xamante ne tàmbali nañ ko di ñaaxaat rek di yeneen xadaraat yi nga xamante ne bindiwuñu di leen encouragé pour aussi tamit ñu bind pour li nga xamante ne moo jëm ci gàmm gàmmu yi euh, maa ngi defe naa sax tëb naa tamit bu waa Seattle seen gàmmu mu ngi nekk le 18 août ak ak le 19 incha incha allahu rabi euh, oustaz euh, Seydina Cheikh di jégalu Seydina Cheikh loolu mooy li nga xamante ne moo di programme bi xanaa di la delloo micro bi ñu daal di commencé ci waxtaan bi incha allahu rabbi bismillah ka waaw kañ asalaamualeykum bi ñaareelu yoon bi niñ koy faral di waxe asalaamualeykum marratan thaniya waa waaleykum salaam waaw yiw rek la ndax nuyoo nuyoo nuyoo waat yiw rek ndax asalaamualeykum li mu làmb dafa bari làmb na li gën a gàtt rek wér gi yaram fanu gudd jaamu yàlla bu ñu nangu wërsëgu yaatoo yaatoo yaatoo yàlla barkeel ñu sàmme sunu war ak suñu diine faral di jàngale rek niñ ko daan jàngale ñu ngi leen di masawu ci coone jaamu yàlla gi yàlla gàll ci sunu kaw duñu noppee am jàmm mukk tànk defuñu jaamu yàlla googu ba pare te suñu defee jaamu yàlla gi ba pare pap dina làmb ñeenti tomb ñeenti tomb yi bi ci njëkk mooy fàtte beneen bi ci topp mooy njuumte benen bi ci top moy tayefu bakkan bi ko ñeenteel nak mooy yaakaar ne yàlla nangu na jaamu yalla gi xeetu jaamu yalla yu ñu yalla digal yépp sang bu tedd bi yi la ko yalla di accompagner bëggul woon nak mu am ci mais daf ko ci dogal pour toroxal cheytaane ak bakkan pour jox nit yi wu teranga aduna ak àllaaxira yalla mo ni woon cheytaane gennal fi yow mi fexe ba empêcher Adama bo ma génne leen génnal mu ni ko ñooy ànd ñun ñaar yàlla ni ko jëlal mu ni ko danaa fexe ba muy fàtte yàlla ni ko jëlal danaa fexe ba muy juum yàlla ni ko jëlal danaa fexe ba muy jëf tayeefu bakkanam yàlla ni ko jëlal tamponeel naa la ko signeel la ko daal di woo Adama ni ko dégg nga li seytaane wax dina fexe ba di leen di fàtte nee na fexe na ba di leen juumloo nee na fexe na ba di leen defloo seen tayeefu bakkan waaye nag danaa la may yow benn bu ma mayul moom mooy yaakaar yow kon danaa la may yaakaar te yaakaar googu ñëwagul ci sa sët yi lay bokk muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon nag booy jaamu yàlla ak jaamu yàlla ga nu mu mën a demee moo xam julli la wala woor la wala aj màkka la wala génne azaka la wala la wala dem defar jàkk ji la wala liggéey ngir yàlla di ko bokk yàlla yi wala saraxe la wala defar diggante bu yàqu la mboolem xeetu jaamu yàlla yooyu yàlla nee na soo koy def ba fàtte dikkal la ca dalalal sa xel ndax lu tax danga doon jaamu yàlla ba fàtte fàtte seytaane moo koy def ndax man yàlla maa ko jox doole ji kon dalalal sa xel ni dinaa la bindal fukki tuyaaba dinaa la bindal ki daraja jéggal la fukki bàkkaar ba pare duma ci yem danaa la jéggalaale bàkkaaru ñàkk mooy yàlla mooy kon doomu aadama sëñ pap saa yu ko yàlla di baaxee ba muy jaamu yàlla te jaamu yàlla ga bu koy yàlla di bindal jaamu yàlla da koy bindalaale yaa bay ñàkk mooy kon loolu ñeent fukki tuyaaba soo ko delloowaatee ci njuumte doomu aadama sooy jam yàlla ba njuumte dab la dalalal saxel xel bul saalit bul jàq seytaane la juumloo yàllaa ko joxoon doole ji waaye tey toroxal na ko moom bakkan ndax ci jaamu yàlla gi nga juume yàlla bindal jéggal na la fukki bindal nala la fukki tuyaaba yëkkatil na la fukki daraja sa diggante ak sa borom jéggal fukki tuyaabay ñàkk mooy yàlla muy juróom-ñett fukki tuyaaba noonu mu la ko defee nag ci njuumte noonu la la ko defale ci tayeefu bakkan tayeefu bakkan nag li mbuuti ak fàttee njuumte mooy tayeefu bakkan saa yoo ko defee mooy yëg yàlla ni yaa ngi jaamu yàlla da nga yëg ni saraxe nga wala nga yëg ni dimbale nga nit wala nga damu ni budul woon man yooyu mooy bakkan mooy seytaane su la yàlla nag ba seytaane dal ci sa kaw ba nga ni da nga jaamu yalla ci jaamu yalla gi yalla neena day genn ci xol bi tok ci sawet du dem du la sori ndax yalla du la bayyi ndax da ngay xaritam ndax yonent bi alayhi salatu wassalam day tok ci sawet nak di la deglu ndax yow solution di ko bëgg ci moom wala de sen mam cheikh hadji malik radiyallahu anhu solution bi moy nga talal ko sa ñaari loxo ni ko yàlla bal ma ci yëg gi ma yëg ni dama doon jaamu yalla yàlla ni la jéggal naa la fukki jéggal naa la fukki bakkaar yëkkatil la fukki daraja jegeel la sama bopp fukki ba pare jéggal la bakkaaru ñàkk mooy yàlla kon pap boo xoolee foofu di nga gis ni am nga ñaar fukki tuyaaba téeméeri ak ñaar fukki tuyaaba ci nit ki jaamu yàlla ba fàtte wala juum wala tayeefu bakkar waaye yàlla nag ne doomu aadama bi mu amee cent vingt jours ci biir way jurum muy 4 mois ci la ko yàlla defal ruux nga xam ni tey boo ci médecin mu am lum la jox nga naan lan lu yàq nit nit njaay nga yàq ndax ruux daa nga jëm loolu nag mooy wane ni yàlla musul bàyyi benn jamono doomu aadama ca biir way jurum bàyyi ko di ko sàmm ba mu gane àdduna mu gàll ko jaamu yàlla goo xam ni su ko def ba fàtte dab ko ndax seytaane koy def juumte def dab ko ndax seytaane koy def tayeefu bakkan dab ko ngir seytaane koy def yàlla ni ma jéggal la ngir toroxal seytaane jox ummatu muhammad teraanga pap loolu ci jaamu yàlla rek la am amul ci leneen kon loolu teraanga la teraanga àllaaxira waaye nag beneen bi gën dal xel pap mooy yaakaar ni yàlla nangu na jaamu yàlla gi yaakaar ni yàlla nangu na saraxe yaakaar ne yàlla nangu na cotisation yi yaakaar ne yàlla nangu na islaaxu zaatil bayni defar diggante bu yàqu yaakaar ni yaakaar ne yaakaar ne yaakaar ne yàlla nee na yaakaar boobu nga am duma ko mas a tas yow doomu aadama dama bëgg nga am conviction boo xam ni ak dalal sa xel ne saa yoo dee jaamu yàlla bayi dab la dalalal sa xel maag yow ñoo far amul dara lu ma condamné au contraire dama ci toroxal seytaane toroxal ci bakkan daal di lay jox tuyaabay de nga àdduna ak àllaaxira ngir yaakaar gi nga am ne yaakaar nga ko ci jaamu yàlla kon pab yaakaar dëgër na pab yaakaar for kon doomu aadama moom lenn rek la doxale digganteem ak borom bi mooy yaakaar yaakaar googu nag bis bu ne ma wax ko ci wàllu jàngale du kenn ku dul min kulli wasfin xamidin xaada افعل تفضيل الرجاء البرايا يوم مزدح مو يا كريم من دفي مو يننجي موم لا يالا دخل سونو ديغنتي اك موم لو جوغي تي يالا نيو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كوي جيل جوخ نيوكو ديريكتومان لوتاخ يالا امول لو نياو واي لو جوغي تي نيون نيون جولي دي تي لوخو يوننتي بي لاي تيغو صلى الله عليه وسلم اوبديكو خول ناخ امنا لو تي تيليم bu xoolee ni ah kii de macha allah mention très bien ah kii de Seyd Sidi Ahmed la mention très honorable ah kii de Cheikh la zéro zéro zéro yeneen bi daal di jël bu Cheikh si gome ko ba mu set mu def ci lu baax def ci yu baax ba nga xam ni kenn du gis ni Cheikh am na lu bon lu mu def yàlla ni yonent bi noonu lay suturaalee jaam bi daal koy tëj teg ci loxo yàlla yàlla ni ko luta mu ni ko yaa ma waxoon wala sawfa Yakti rabbuka fatarde ken manu ci dara yalla ko waxon dina la jox ba nga konta yenent bi ni kon nak sama xet bi dana taxaw nan dugg aljana ba dotuma gisati ku dess xam nga loolu yitte la cofeel rek boko doxale digeunte mak bi alayhi salatu wassalam kon dal pap loolu luñ djublu ci jangale bobu moy point bu mujj bi yakar yaakaar xajoo yakar kajo yaakaar xajoo yaakaar xajoo naag tayeefu bakkan yaakaar nag moom lépp mi ngi ci biir te ya mooy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boo jëloon yonent bi alhaaji pap kebe teg ko ci mhm. balance jël mboolem li yàlla bind ci nit ak jinne ak malaika ak univers yépp nga dajale ko géej gi ci la bokk biddiw yi ci la bokk ndox mi ci la bokk kuréel bi ci la nga dajaleen ñoom ñëpp teg leen ci benn balance jël sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam teg ci balance bi ci des mu daaneel leen kon yonent bi bari na doole hmm. lu tax wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmudi wa huwa habib amul dara lu yara am amal ci ko suuf ngir boppam ku dul yonent bi al yonent bi rek ko ko ñor yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong ko sas moo tax mu jox ko julli jox ko woor jox aj màkk jox ko génne azaka shahaadatay ni ni ko yóbbulal xeet ku ciy jaamu yàlla ba lii dab la jéggal naa la xanaa lii neex na macha allah kon alxaaji Pape loolu mooy li nga xam ni moom la jamu yàlla yi ñeent yi ñoo fonde mu mel ni ñeenti koñu kaabatul musharrafa kaaba gu magga mooy baytillahi alxaram mu di fal yaabudu rabba hadha kon di nga gis ne yàlla dal doomu aadama moo ko ñor waaye ci biir doomu aadama yonent bi dong moo ko ñor mu ni mu awjada baaqil xalqi taadima xibbihi alayhi taxiyaatun ilayhi yatib mu ni mu amal nag leneen li ne ci adduna bi yëpp ngir màggal yonent kon ndekete fas wi sax li tax mu am mooy fas wi dafa war a màggal yonent bi xar xar mi dafa war a màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melentaan bi lu tax muy dox ci kaw suuf dafa war a màggal sayyiduna muhammad moo tax cheikh alhaj man ni waaw ñii nii bu leen yàlla mënee bind ñu mën a màggal yonent bi kon fa kayfa man amanu billahi rabbihim innal jamadaati ca xilaasu zahab góor nga innal jamadaati qad qaadat munsadia fa kayfa man amanu billahi mu ni doj yi sax xaw nañoo xar ngir màggal rasulullah doj yi garab yi muni kon fa kayfa man amanu kon ñi gëm yalla kon tey ay nit ñom lan lañ wara def xana ñom kon dañu wara de gir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bobu nak mo waxon ne julli gi du mën bax wor gi du mën bax makka gi du bax genné azaka bi du mën bax lu dul ciosan baxu ñu ni ko lan moy ciosan mu ni li dox ci diggante way jur wu góor ak way jur wu jigéen il faut que sàmm ko ndax ñoom ñooy génn nit mu màgg mën a julli mën a woor mën a aj màkk mën a génne asam ñu ni kon yàlla jotoon nañ ci jàng waaye comme jàngalekat ñaare bu bëggee baamuwaat leçon bi mu joxe woon bu passé pour mën a xam fi ñu commencé woon il faut mu am tuuti lum ci jaaraat brefement maanaam lu ci lu tudde lu naan lu gaaw mm-hmm. waxoon nañu bu dee jigéen ki ñett rek mooy wéy ñett rek mooy àq ku jigéen ki ci kër gi na bu ko soxla jëkkëram soxlaa te amul benn ngant na ko wuyu bu fekkee yàlla dafa def mu war a am doom mu war a am doom kon jigéen buy planning ci l'islam l'islam da koy condamné kon kon jigéen warul planifié wu bu fekkee ni amul dara luy gàn luy gàllankoor wér gi yaramam kon dañ ko koy téré ndax dafa wara jural jëkëram doom bu dé dara jottu ko macha allah mi ngi dox normal kon boo planifié wulo feo togn nga sa jëkkër sa yo ñu la soxla nga bañ togn nga sa kon ak yi nañ ko bayyi xel ci digënté bo benen bi moy samal ko ta alal waxon nañ ko benen bi ci top moy yar yar nak yalla joxuko ko Yalla jigen la jox yar motax def dafa wax ni comme ak yi non la toll Muni won yow ku jigen ki sula yalla baxé ba nga wan lor waxon nañ ko dañ ci rappeler touti rek nga ñew ni sama jëkër sa jëkër nga ni ko dama wan lor muni ni est lum lu mu am mu jox la yonent bi nak neena yalla neena bis ba nga déggé ni sa jëk jawar dafa wan lor nee na changé waatul dundam maanaam boo nekkoon ci benn étape demal ci deuxième étape ndax léegi dootul moom kese soxna si waaye li mu ëmb la kon bokk na ci ab wayjur wu góor ci doomam ji war a ñëw te soxna si moo ko ëmb muy veeye ci soxna si yàlla dafa wax ci alquran ni in kunna ulaati xamlin fa anfiqu alayhinna xatta yadana xamlahunna yàlla nee na su ngeen demee ba seen soxna yi ni dama wan lor kulaati xamlin dañoo ëmb fa góor ñi yéen laay wax déglu leen ma bu baax yàlla yàllaay wax de ci làmmiñu yéen bi anfiqu na ngeen di dépenser alayhinna ci looy xam ne farata la ci ñoom ngeen taxaw ndax li ci biir bi wërsëg la te yow yaa ko moom yaa ko war a sàmm xataa yadaana bul ko bàyyi lu dul dafa sippi xam hamlahunna memuuram mooy lan dafa accoucher kon neuf mois yi nga xam ni alxaaji pap tu kebe mhm. jigéen daf ko ëmb ku góor ki dafa war a veiller ci moom ndax lu tax yenn saay mu xel mi teey mu génne jikko ju xaw a doy waar yàlla neen accepté ko ndax yaa ko ci def yenn saay mu jafte am jigéen ñoom dañoo mën a jafte waaw jigéen ju góor gu amul yërmande du muñal jigéen ju jafte ndax li ne ci biir moo tax tey moom ñaari nit la am ñaar daf moom la ak ki ne ci biir te ki ne ci biir xamuñu lan la war a doon xamuñu ndax imam la war a doon xamuñu ndax chef de quartier bu jub la war a doon xamuñu ndax milliardaire la war a doon buy defar xamuñu ndax président lay ñëw xamuñu ndax wëli yu yàlla lay xamuñu ndax xamuñu ndax xamuñu ndax kon ndekete la nekk ci biir ci kattanu yàlla rafetal njort tey veillé ci wéyjuram lépp lu mu soxla defal maanaam bu ne woon dama bëgg boisson sax dawal nga gaaw nga jëndi boisson ñëw jox soo ko joxee mu ne ah bëgguma tegal ma fële yàlla nee na bul jàpp bul jéppi de li ne ci biir a koy wax loo te yëgu mm-hmm, mm-hmm. li ne ci biir tegal ko fale dawal nga dugal ko ca frigo ba bon bu taw ci ak mu la mad la bëgg mad yalla ne dawal fu mad am demal nga jëli ñu ni ko yow yalla loolu day mel mu ni déet ya ko ci def ndax ngay tak soxna waxon nañ nga assumer ses responsabilités ne lepp lu war sa digënté ak moom da ko wara taxaw nga daal di taw jëndi mad waaw bul faalé sax ku la ni wa fo jëm nga ni marché bul ko faalé de loy wut sama soxna lay jëndal mad bul bu rus loolu de lutax yow yaa def la nekk ci moom te loola xamoo lu muy doon ci yow ëllëg kon fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun ñu tobas yaag mu ne dama bëgg a doxantu ci naaj bu tàng naaj bu tàng jër je mu ne dama bëgg a doxantu yàlla neena jugal gunge ko jugal gunge ko fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun lépp lu mu bëgg caprice bu mu génne rek nangu ko ñun nag pa foofu la ñuy juume ñun ñun caprice ñoom ñun dañuy daw dañuy daw oh, bu ko defee bu ko defee dañ naan waa kii moom lu mu bëgg a bëri mi ngi noonu ko defee nag daw ga moo tax la ne ca ah. biir la ne ca biir nag nam waroon a mel ci yow attaché attachement bi mu waroon am ci yow day manqué parce que da ko dawoon moo tax waaye boo jegee yaay ci di ko vivee ci moom waaw dem biro ba alo euh, lan la euh, dama laa nam bàyyil liggéey ba tëjal dawal nga ñëw ci foofu li fa yàlla bëgg a jàngale rek mooy nekkin wi ak moom bi mu ëmbagul te mu doon neex lool bu ëmbee gën a la yokk sa effort comme ni ma leen ko waxoon ci wàllu dox ànd hmm. gis nga ñu dox ànd lañ mën mais mënuñu yor soxna ndax booy dox ànd dangay toog nga jënd portable buñ la jënd loowul maa ngi ko doon wax keroog ci bind bi lu ne nga def ko rek te takk googu so takke nak daldi délaissé fekk da nga wara double effort so double effort ba mu xamni ki kat bi koy dox am nang ko bëgge won bi ko tiyé ci kër gi non nga ko gëna bëgge lutax lay ñëw lañu xamagul nu koy yalla di def so ko takke nak ba mu ëmb nak nga gëna def effort muy ñett étape par mm-hmm. bi koy séti pour takko effort bi nga don def bi ko takke effort bu dafa wara doubler bi mu demee nag ba wan na lor da nga war a gën a doubler moo tax ñett pap ñett lu am solo la ci ñun moo tax yàlla utaloon nañu bisu ngénti bisu takk ak bisu dëj waaw pour rek ñu ciy def suñu activité kon bi nga xamee ni nag gunge nga ko ci effort boobu boo demee ba dara lu dul ni am na bandi lu sax eggale seen seen eggale ok jégal waa eggale barakallah soo demee ba mu ni la ah léegi nag am na rendez-vous sharia nee na bàyyi lépp loo jàppoon nga ñëw ànd ak moom ci rendez ndax lu tax boo bëggee mu gaaw a def accouchement bu normal suñ ko yóbboo ci salle d'accouchement accompagner ko soo demee nga jàpp ci loxoom tuye ko di ko xool bët ci bët loolu cofeel googu dana tax mu fàtte ne sax dafay def accouchement ñun loolu lañu ñu lislaam sant mais nag malheureusement pam ñun loolu duñ ko def waaw boo tuyee ci loxoom bi nii xool ko bët ci bët mën na accoucher tax te du yëg ne def na accouchement waaye nag ah, tubaab yi de noonu la ñuy def waaye ñun jullit yi xawma lan moo ñu dal rek yan xayaa yi wala kersa ci yenn affaire yi loolu nag mooy bu ëmbee na nga ko ak accompagner lépp lu ci war nga def boobu mooy par entre parenthèse boo xam ne doon na dugg waaye maa ngi yemoon keroog ci waxtaan wi ne gane na àdduna li diglé digle yëpp def nañ ko biñ ba pare nag yàlla ni waaw kañ jël ko ngeen jox ko yaayam mu yar ko kon loolu la mam alaaji munsur waxoon ne nit pap dang koy yar soko ko jàngal soog a ànd ak moom yar gi juróom-ñaari at la ànd ak moom jàngal juróom-ñaari at ànd ak moom juróom-ñaari at muy 21 ans pap kon ndeke ñun dañoo faussé fa ñu waroon a yare mm-hmm. ni yàlla lu tax bi doom ganee àdduna nga ni jox leen ko yaayam mu yar ko mooy anardiihi jox leen ko yaayam mu nàmpal ko mu ni parce que papa amul lu mu nàmpale comme amul lu mu nàmpale te yaay mooy nàmpal nàmpal mooy yar papa na uti lu mu jox yaay ndax mu am soow mu mu nàmpale mm-hmm. ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa'i bima faddala allahu baadahum ala baad yàlla nee na lépp lu war ci kër gi ci yar ci diggante ak yi dox ci diggante ak doom ci baay la ko yàlla gàll ak ci soxna si su boobaa papa am na ñaari programme soxna si ak doom ji doom ji ca biir way juróom nga ko commencé di tabaarakallahu toppatoo bi mu ganee adduna nag danga war a doubler waat sa effort lan la soxla lan la soxla li mu soxla yëpp yaay jee ko nga dem ci yaay ji wax ak moom lan la soxla nga mu ni la nangam ak nangam ak nangam nga mën ko jël ko nga def nga jaamoo ko yàlla kon papa day jaamu yàlla ci soxnaam waaye day jaamu yàlla ci doomam ngir lan su ëllëgee ñu mën a amal adduna bi njëriñ moo xam dëkk ba mu dëkk la wala dëkk ba mu tukki uti lu mu dunde la ñu ni waaw léegi yar googu maam Alaaji Mansour naka lañ koy defee mu ni mi ngi commencé ci bu commencé di nam yow mi nga xam ni yaay dem di indi la ngay indi na lew ndax la ngay indi ca la ñuy dugg def ci lépp indi nga lekk moom mu new nàmp ci su fekkee ni lu lew la su nàmpee day nàmp lu lew kon yangi yar sa doom yow jàngale goo de ci yar la toll ngay ut lu lew yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ut lu gur risqa na ngeen ut wërsëg wa ajminu talaba na ngeen rafetal nu ngeen koy sàkku moom la seen maam seen soppi sunu sëriñ cheikh alhaji malik maamu sang bu tedd boobu sid ahmed si ne wa fi talabil ardaqi ya qawmi ajmilu kama jaa an hadil wara lisfai yàlla nee na maam moo doon yàlla nee na ci yonent bi xadis bu wér mu ni wa fi talabil arzaqi wa ajmilu na ngeen rafetal fi talabil arzaqi ci wut wërsëg ndax ci ngay demee marché ci ngay togge xale bi ci lay lekk yow ci ngay lekk yaay ji ci lay lekk mu ni kama jaa an adil wara ni ko xadis bi indee ngir safa ngir sell gu mu sell moom yonent bi li safa yi ngir sell gu sell moom xadis bi li safa yi sell gi mu sell moom mi koy jëfandikoo gis nga xadis bi ñett ñëpp la kondam li safa yi sellug yonent bi sellug bi sellug ummatu bi koy jëfandikoo mu ni kon nag rafetal wërsëk amin ba dana tax yàlla boy yar ku jigéen ki mu dimbale la ci yar googu moo tax mu ne ci xadis bu wér waxoon ne yow yàlla yow mi nga xam ne anardiihi anardiihi anardiihi soxna si nag nang ko nampal nampal ci la yar commencé ci zahir yar ci zahir ci nampal la commencé ci baatin ca ut ca utal ko yaay la commencé waaye ci zahir ci nampal la commencé moo tax bu ñu ko noddalee rek li xam dañ naan dawal jox ko yaayam gaaw mu nampal ko xëy na dafa xiif léegi nag nampal googu tamit yàlla nee na ngeen def ko am fi mu fi mu fi mu ëmbe fi mu ëmbe ba fi muy fere na nekk salaasuuna sëhran salaasuuna sëhran pap mooy ñaari at ak juróom benn weer fanweeri weer fanweeri weer pap ñaata at la fanweeri weer xam nga douze mois douze mois di benn mooy un an waaw waaw douze mois mooy un an mhm. nga amaat douze mois muy ñaata deux ans waaw muy di vingt quatre mois waaw muy vingt quatre mois nga tolliwaat ci mhm. six six mois mooy ñaari ata ak genn wàll ñaari at ak genn wàll léegi nag fi mu ëmbe ba fi muy defee accouchement mooy fanweeri weer boo ci génnee juróom-ñeenti weeru ëmb gi ñaataa ciy des boo ci génnee juróom-ñeenti weer defee sant nga Moudes. Hein? 21. Mana Moudes 21 mois. 21 mois, beaucoup de temps. Si at nek du at ak jurom nyetuer. Très bien. Gis nga 21 ouais. mois. Xam nga ya ko waxal sa bop. 21 mois. Mm -hmm. Lan la la wax legi ki yar ko ci jurom nyari? Jurom eh, nyari, jurom nyari nyetuer mounek 21. Jurom, ja, ha, très uh Kon xam kon xam nga Pape hasard amul. <laughs> macha allah. xam xam-xam rek la nit di wut yow. Mhm. mois yi nga xam ni moom nga ko nàmpal gannaaw bi mu ganee àdduna. 21 jours nga 21 21 naa ci nga koy yar. 21 mois nga ko nàmpal yar ko 21 naa te 21 naa mooy ñaar juróom-ñaari at yar juróom-ñaari at jàngal ko juróom-ñaari at ànd moom jàngal ko àdduna. xam àdduna gis nga mm-hmm. muy vingt et un ans mm-hmm. moo tax maam alaaji Mansour ne wa zeynul fata baada tuqa adabun lahu wa ilmun wa islahun ilayhi yadiru pap góor googu amul ci kaw suuf yàlla taala bu ñu doon alaaji Malick bu ñu ñëwoon am na ñaareelu alaaji Malick bu ko doon wër di ko wër di ko wër mm-hmm. waaye maam Maodo moom amul ñaar ndax kenn mënul mel ni moom. waaw mhm. waaye fexe na ba def maam Alxaaji Mansour noo xam ni bor bu ko digoon la bor bi mooy papa dama bëgg a jàngi ni samay moroom. mu ne ko tey ngaa toog rek ma def loo xam ne ñoom ñëpp bu ñëwee daañu bàyyi lañ la bàyyi xel. mu dégg ndigal toog ndigalam loolu mu dégg toog moo tax tey maam Maodo def ko muy Alxaaji Malik loolu ñëpp seede nañ albastani bilibasi sitri fi zamanin khudran nia fil aqrani dawudu ca fardun ala ibni al walidaini wa antal walidul bar ya ustaz sindidu bo gisee sank manan la del wax ci amee tidiane ci kese ustaz nit ñi dañ koy foye te lu rëy la mam modo ustaz la kon cheikh tidiane ci bu bëggee bo ustaz kon mi ngi mi ngi yëkëti bopam di jéem tollok mag mbagg nekk oustaz looloo tax moo delloo si amee tijan si rek bushra loolu kon oustaz yombul gaye yi xoggaliku rek oustaz oustaz nyi ñuy foog ni ñoo tas dëkk bi fekk lakk nañ mam mam masul ni ko albastani waddu nga ma yar nga ma yow mali mm-hmm. nga ma yow mali xamal nga ma samay bokk ndax boo dem da nga daan ànd ak man ba ñëpp xam te loolu mooy yar nga solal ma nag bi libaasi sitri mbalaanu sutura moo xam ni du xewweeku ba mukk ka anniya ba mel ni man alaaji munsur daawudu may sayiduna daawuda ba amun nguuram nga xam ni fu mu dugg ñëpp xajal ko mu toog fu mu dugg ñëpp bu toogul du toog moom daawuda yow alxaaji malik man alaaji Mansour yama ma def non kon deke nit dang koy ya bu magge nak gis ni yar nga ko lan mo cey top moy remercier la mam alaaji Mansour dañ ne mangi juk di remercier sama wayjur yi nga xamni ne gannaaw bi ma gané aduna yar na ma juróom-ñaari at jangal ma juróom-ñaari at and ak man juróom-ñaari at mam alaaji Mansour ñaata at la dund ci mam alaaji Malik seigne euh, pap pap ki pap Mm, jàpp ma ko jàpp jàpp jàpp ma ko. ah Mame El Hadj Mansour 1900 la. waaw. Mame Mamadou 1922 la génn àdduna xanaa kon 21 ans yi. 21 ans waaw 21 ans. <laughs> macha allah. moo tax mbir yi du du hasard. yàlla da koy mm-hmm. programme. Mm-hmm. mu ni yàlla yow li Mame El Hadj Malick Mame Mansour nee na ko papa li la yàlla santoon ci man def nga ko ci ci at yim la ko sante woon. at yi mooy vingt et un ans mhm. vingt deux ans mu mu génn àdduna bàyyi fi mhm. kon jàngal na yar na ko juróom-ñaari at jàngal na ko juróom-ñaari at ànd naa moom juróom-ñaari at muy vingt et un ans mhm. vingt deuxième année bi Mamadou dem bàyyi ko fi mu nekk Mamadou mu sotti ci vingt et un ans moom Alaaji Mansour nekk na Mamadou mu sotti mu ni kon nag dana jaadu man ma remercier sama papa daal ni fardun farata la alal ibni ci doom bu ñuy wax Cheikh Alhaji suur shukrul waalidey ni mu sant ñaari way juram mam Sofiyatu ak Alhaji Malik xoolal loolu mu ni anta yow papa nag waalidul barru yow yaay way jur wi nga xam ni ku baax nga way jur wu baax mooy lan way jur wu yar doomam way jur wu baax mooy way jur wu jàngal doomam way jur wu baax mooy way jur wu jàngal doomam àdduna mooy buy dem mu ànd ak moom ci mbokk gi moom la góor gi wax fii nag ne wa zeynul fata maa ngi leen di rappeler di leen fàttali ni ma sam papa def maa ngi leen di fàttaliku ngeen def ko te sam papa bi ma koy def man alaaj alaaji Mansuur daf ko teg ci xadis bu wér xadis ba mooy lan yonent bi daf ni addibhu na nga yar sa doom sab'an juróom-ñaari at wa allimhu nga jàngal ko sab'an juróom-ñaari at wa saaxibtu nga ànd ak moom booy dem ci ngénte yi booy dem ci mbokk gi loolu ñun defatuñ ko mag ñi bu njëkk buñ daan dem ci mbokk dañ daan téye seen loxo doom yi yóbbu ci mbokk gi suñ demee ca mbokk ga ñu présenté la kii mooy sëg kii mooy sala nangam nangam waaye léegi loolu daanaka amatul moo tax éducation yi base ba li waroon nga téye fonde moo Moy yar legi ñun dañuy jangal rek dañuy and ak ñom rek ta base nak moy yene ci julli yene su amul julli ga du baax base moy fondement fondement bu amul tabax bi du jóg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni jaddidu niyaati fi a'malikum wa aqwalikum de len yeesal seen yene ci seen yar ci seen jangale ci seen defar ak mbokk ndax lu tax innamal amalu yéene yëpp jëf yëpp te mooy yar jëf yëpp te mooy jàngale jëf yëpp te mooy ànd sa njaboot ci mbokk gi di leen wan ñu xam ko binni yaati maa ngi ko teg ci yéene yi pap xadis boobu xam nga lu tax mu wàcc mm-hmm. dafa am bés ñuy def xare ñuy xeex biñ ne nañu xeex ñu bari ci sahaba yi gàddaay gàddaay nañu gàddaay yenent bi ni nañu gàddaay gàddaay ndigal la yàlla ko joxe kon ku demul bàyyi nga ndigalu yàlla pap yonent bi waajal ni aca ñu leen dem ñu war a dem am góor ñoo xam ni dañoo mel ni man dañoo tayal dañoo parase bëgguñu dara lu nooy rek lu nooy ñoom daal lu nooy rek lañ bëgg fu mu nooyee rek fala biñu ñu waajee bay dem seen jabar yi ñoom jóg ni ñoom dañuy gadda yi ànd ak yonent bi ndax yàlla ko santaane te lu yàlla ak yonent bi santaane ñoom dañ koy def am ci góor ñoo xam ne ñoom dañu waxoon ni duñu dem gadda yi de dañuy lànk ni duñ gadda yi waaye yàlla nattu leen nag soxnaam yi ni dañuy gadda yi kon soxna yàgg naa am taxawaay ci lislaam waaw maa ngi fi gis fii ndey xadi ndeysaan maa ngi fi gis aja ami ndeysaan fatabarakallah akan ak kan waaw ñi ñaa ay jigéen ñu jambar lañ ji rama ramata ndeysaan beneen ramata job bi ndaysan fatabarakallah asiyatu fay ndaysan wa jigen yag na nek jambar de waaw xajjata xajjata hmm. sax ndaysan kon nga gis ni jigen yag na nek jambar paa goor ñi dem ci seen jabar ni len wa yeen fu ngeen dem ñu ni ko ñu ni dañuy and ak yonent bi ñun ñoom ñu daal ni comme nag dañuy gàddaay ñoom it dañuy ànd ak jigéen ñi gàddaay yi kon ñoom dañoo gàddaay ngir jigéen ñi seen soxna yi waaye gàddaayuñu ngir yàlla ak yonent ci la yàlla indee xadis bi daat ne nag innamal amalu binniyaati jëf yëpp ñu ngi ko aj ci yi kon gàddaay jigéen ña gàddaay jigéen ña ñoo am yiw gàdduwaale seen yiwu jëkkër seen jëkkër ñi amuñu dara ñoom jigéen rek lañu am ndax jigéen a tax ñu gàddaay man kaana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma haajara ilay man képp koo xam ne kaana dafa nekk hijratuhu gàddaayam ila allahi yàlla tax wa rasulihi ak yonentam fa hijratuhu gàddaayam ila allahi yàlla dana ko bindal tuyaaba wa rasulihi yonent bi dana ko bëgg wa waaye man kaana képp ku nekk hijratuhu gàddaayam ila dunya adduna rek tax aw imraatin yusibuha wala sa jabara gàddaay tax nga jàpp gàddaay fa hijratuhu sagadda ila ma hajara ilay do ci am yalla do ci am yonent bi alayhi salaatu kon kérok ñi du defis ci gàddaay ga moy jigen ñi ñoo du defis ndax jigen ñi ñoo volontaire yor jikkoy khadijatu alayha salam juk wala radiyallahu anha ànd yonent bi jappale ko mu taxaw kérok jigen ñi non lañ fassé sen li ñuy wax jigen ju mën góor yonent ya. bi gàddaay hadith bobu dal di wacc kon pap fofu liñ fi bëgg jàngal rek mooy yéene yar xale yi yéene jàngal xale yi yéene xamal xale yi seen mbokk waaw boo amee sa rakk bu góor mu am kër nga benn dimanche nga gàddaay ni ko danañu fay yendu si dimanche ànd ak ñoom dem dimanche yendu si soo demee fekk fa jabootam ngan leen yéen seen seen maag seen papa ñoo bokk ndey ak baay wala mak seen papa ñoo bokk baay wala maag seen papa ñoo bokk yaay kii sa rakk la kii sa cousin la kii dana tax suñ demee ba jël soxna war a am doo jëggaani doo jëggaani mais loolu amatul léegi dox daja rek waaw métissage bi baree baree bari ba mooy loolu te deret dafa for sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa ko ci bi bii passé bi alquran naan daganal naa la inna ahlal naa laka azwajak التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عمك بنات عم بآي جيخ waxoon naa tamit ne ñoom duñu xeebante waaw nga xëy rek yenn ji kër nijaayam mag ñi noonu laaj ne moom la ma alaaji Mansour wax ne wa zeynul fata taaru doomu aadama taawu nit baada tuqaa gannaaw ba mu ganee àdduna waaw pap firi boobu mooy firi bi gën a jamtalu tuqaa mhm. mooy ragal yàlla waaye fii nii tuqaa ra firiwu fi ragal yàlla contexte bi mu ñëwee contexte mhm. devoiru papa ci doom lay wax moo tax mhm. kon wa zeynul fata taaru ascem taaru nit baada tuqaa gannaaw bi mu ganee àdduna xam nga lu tax mam Mansour ni baada tuqaa mooy nit bu ganee àdduna liir liir xam nga liir amagul kon am ragal yàlla kon amul ben bakkar moo tax mu ni ba'da tuqa gannaaw ba mu ganee nit gannaaw bi mu aduna. àdduna li war a njëkk ci moom mooy yar yar fu muy commencé ci nampal ba'da tuqa adabun mooy yar ko lehu juróom-ñaari at ñu ni mammaasu ndax lool rek mu ni adabun wa ilmun ak nga jàngal ko gis nga nga jàngal ko juróom-ñaari at moo tax sama turandoo si tàmm tijaani chérif radiyallahu bi mi am juróom-ñaari at Molem riwaya yu wacc ci alquran jang na ko xam seeni ponk xam seeni lepp lu ci aju juróom ñaari at cheikh tijani sama turulo nga xam ni insha allah taala ci muharram bi fukk ak ñaar ci muharram le tiewon lu ñuy wax xatmi ñu ñu dox fukki fan ak juróom ñett ci safar mu muy ñaari maqama yo xamni bu bu kenn xamu ko yàlla rek ko ko xam hmm. kon moom fi nit ñi commencé yar moom fala mokkalee lam war a mokkal maam fala doon jàngi kon moom hmm. yaru na lu jiitu muy gën a àdduna maam Alaaji Mansuur nag ni comme ñun duñu cheikh duñu yonent bi nitu ordinaire lañu rek waaw nitu ordinaire lañu rek waaw kon su boobaa nañu jàngal suñu doom yi waaye balaa ñu leen di jàngal nañu leen yar kon yaay mooy yar ñu ni yàlla lu tax nga jox yaay mu yar mu ni yaay moo ëpp yërmande baay baay xamul yar baay boo léegi yar lay jóg dóor la eh foo jëm bitig ba toogal fii nga ñàkk a toog mu xeex ak yow dóor la baay loolu la xam baay mënul yar dafa am doole te xale kenn du ko dóor nit mën na yar xale ba mu yaru te du ko dóor wallahi alazim yàlla xam na xale moom gannaaw bi nga koy yar mi ngi mi ngi nàmp mi ngi fer ñaari at ñett nga ni xaaral ma yóbbu ko ca daara ja juróom ñaari at mu mokkal alquran mën na nekk ndax ñun bari nañ ñu mokkal alquran yoo xam ne ay xale lañu sept ans rek fekk mokkal nañu alquran bu yàgg yàlla nee na loolu moo jiitu ci moom su ko defee boo koy dugal école nga dugal ko école fekk yàlla jiitu na ci moom kon ba yaa ngi koy yar ndax lu tax boo yaree da ngay jàng da koy jàngal moo xam école na jàng moo xam xam-xam la jàng moo xam chinois la jàng moo xam italien la jàng na jàng loo xam ne su ëllëgee mu mën ci am la sëñ Babacar waxoon mooy métier nit day am métier pa nit am métier moo tax mu naan suñu diine suñu tariqa suñu métier suñu daaira suñu yoonu tiwaawan xam nga loolu xam nga loolu mi ngi dox mm-hmm. mi ngi dox kon yar ka mm-hmm. base ba moo baax Mam alaji Mansour ni ko farata la ci man alaji Mansour ma sant Cheikh Malik geureum ko ci nim ma def def na ma no xamni bour la comme daoud fuma dugg ñu ni ma yaay jiite mbolo mu ma juk ñepp juk taxaw suma ñewé ñepp nuyu ma ni ma togal ma tok ñepp soga tok toog Malik burla la ma def kon fardun alal ibni farata la ci dom mu delloo jukkal wayjuram waye ban wayjur wayjur wi nga xamni da nga judd mu abandoner la Mhm. dem ba nga mag mu soog ñew naan sama doom koku sharia neena bu len ko jox dom amu dom ah, wa waw kañ mhm. fit de responsabilité yoy sharia da koy téré jigen ji nek ci mhm. nak yeur di so ba mu mag nga ñew naan an sama doom yow am nga kess wara ñew di laaj doom lolu xawna bari lolu xawna bari na bëri allah bari na lolu nak li joon jaadu moy ku jigen ki ci bopam mom moy yaay japp ci dom dem ca papam ni ko kii mooy sa pap waye yow bo ñewé naan an sama dom rek eh, da nga sagat waro laaj dom de hmm. motax gis nga jigen ni yal na leen yàlla fay na ñi nek ci diaspora bi billahi yal na leen yàlla jàppale maam alaaj hmm. mun suuf nag la wax mu ni comme yalla daf ni won yar len ko jangal ko and ak mom kon fardun al ibni shukrul walidaini mu sant ay wayjuram rawatina yaay ndax yaay mo am yermane moy yar benn suñu waaye borom xam-xam bu ahmad shawqi moo ko wax nee na al ummu madrasatun ida a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyiban a'raq nee na yaay université la boo xam ne université yëpp fa lañ war génne ñu naan kii savant la kii philosophe la kii nangam ki nangam ki agrégé en nangam nangam nangam mu ni rek moo mën loolu yaay moo mën boole yi yëpp waat ni mën na leen a jur ndax na muy góorgóorloo ca àq way jur ci doom ñett la moo tax li yàlla gën a baax ci nit mu war ko def bariwul góor nag àq àq ci soxnaam du ko wàcc bu feebaree mu faj bu bu bu soxlaa mu jox mm-hmm. bu sol jotee mu sol dëkkoo ko dëkkal ko du ko wàcc du ko wàcc du ko wàcc ba muy dugal soxna si ci biir suuf te soxna si moom àq wàcc na ko ni ko wàcc mooy jural ko doom loolu la yàlla dogal ba pare sàmmal ko alala mooy jëmm ci ak alal ji koy jox naan ko baal ma demal ma marché baal ma toggal ma beneen bi mhm. yàlla ko sant ku jigéen ki ni ko yaral ma kon ñaar mhm. ñii rek mooy àq jigéen ci jëkkër mu des nag mhm. ci jëkkër waaw ci borom këram ñaar yooyu kese benn bi yàlla bu ëllëgee moom lay laaj ku jigéen ki ne ko naka nga defoon ak sa doom ji ndax yaroon nga leen moo tax pap bu ngénte jotee nga ngénte ngénte li neex sa taaw léegi nag yàlla def nga am ñaareelu so alal ji gën a yaatu nga naan ah ngénte woon na pap maandu woo de mm-hmm. aha foofu foofu defe fofu fofu bokk na ci ci ci ci bokk na ci àqu way jur ak doom aha parce que lu tax nga defal ko taaw bi mm-hmm. àdduna dox rek nga ni du ma ko defal keneen kon yow maandu woo très bien mm-hmm. kon yow dégg nga ma may waxi yàlla nee mm-hmm. na taaw nanga ko su ñaareel ñëwee su mënula yokk bul ko wàññi ñetteel ba la même chose ñeenteel ba juróomeel ba fa ko yàlla soob ndax soo ko deful rek bu ëllëgee tuumaal nga sa bopp ndax suñu toogee yaay di nettali ii diw ngénteem la ak a neex kontaan toog di balballu ndax ngénte la fa neex waaye diw de moom ba mu ngénte moom de kenn jotu ko sax gis nga rayal sax waaw xaar kenn jotu ko sax xam nga kooku vexé nga ko ñàkk a googu nag la yàlla di wax ni sooy yar doom àq la ci sa doom ji nga maandu seen diggante loolu nag foofu suñu borom mu ngi ko dugalee te fu mu naan boo nekkee borom kër boo yor bu la yàlla joxee njaboot doo yëkkati ci wàcc wàccee wàccee des waaye eggale bisimilah ci bëgg a doon dolli rek wallahi wallahi waaw kon daal sëriñ bi loolu daal mooy yar ganna ci ci ci baatin utal ko yaay ju baax ndax gisagul dara ci biir la nekk ñëwagul ci zaahir mooy mu nàmpal ko commencé nàmpal jàngal ko yar ko jàngal ko léegi nag étape yooyu su ko passé alxaaji pap passé na ko maanaam dem na ba nekk mag dem na ba am vingt et yaruñ ko jàngaluñ ko xam xamaluñ ko ay mbokkam pap xam nga lu fa sës mhm. da ngay uti nitu yàlla bul uti sëriñ de aha nit su demee bëtë gisoo mag ñi bu njëkk boo gisee kutte dañ koy jël yeew yóbbu kokki yóbbu ko daal aha wax jàngo kon pap solution ci xale bu jàngul ba nekk mag mooy hmm. utal ko nitu yàlla nitu yàlla nag moom lépp lu la ci yar lépp lu la ci jàng lépp lu la ci xamal ko ay mbokkam nitu yàlla rek moo ko ko mën a dabaatal ci moom yàlla na nga taseeg nag nitu yàlla bu mel ni maam Cheikh El Hadj Omar nga jël sa doom jox ko. wala nag taalibeem bi soppeem bi Cheikh El Hadj Malick maam Hadi nee na yàlla mayoon na ko moom Cheikh El Hadj Malick lay jàngal fekk nga gën a naqari xel ci ko suuf bis ba mu lay jàngal ci nga commencé di neex xel loolu nit yàlla la bokkul ak sëriñ boo joxee sa sëriñ mën na nekk cheikhu taalim Mm-hmm. cheikhu taalim mooy sëriñ boo xam day jàngal rek waa ji su mm-hmm. koy jàngal boo sax sëriñ ba moo dàqa tux cigarette sëriñ ba mm-hmm. dàqa taxawaalu moo tax naan nangam nangam bu ko dee jàngal na xale ba yooya mën naa jeexital ci moom mu génn ca daara ja di toxoo ka naan maanaam dama joxe exemple rek wala mu nekk cheikhul murabbi mooy cheikhu tarbiyati Mm-hmm. sëriñ boo xam ne dalay jàngal dalay yaraale mm-hmm. mais loolu moo jafe pap ci jamono am na koo xam ne du yem ci jàngal la yaraale la waaye day nekk cheikhul muraqi mooy cheikhul tarqiya ku lay yéegi ci wàllu yàlla di la defar mm-hmm. wali yàlla nag ñett yi dafa daje ci moom wali yàlla cheikhul taalim la wali yàlla cheikhul tarqiya la wali yàlla cheikhul murabbiya la mooy cheikhul tarbiyati kon ñett yi sodom so soo demee ba rëcc na ba amutul dara loo ko mënal soo waxee benn mu ni fukk soo ko yónnee mu ni la xaaral ma ñëw soo ko waxee jugal nga dem liggéey mu ni la defuma loo wax mu xëpp ci suuf jël ko nga yeew ko ba mu dëgër dem jox ko nitu yàlla bu demee ca daara ja nag bis dana ñëw ñu ni ko doo dem seen waa kër nga seeti leen mun la déedéet man daara jee ma dàqal parce que lu tax la mu manqué woon ba mu amee juróom-ñaari at muy yar la mu hmm. manqué woon ba mu amee fukki at ak ñaar muy jàng la mu manqué woon ba mu amee ñaar fukki at ak benn la hmm. ñëw sëriñ bi def ko ci moom ba bëggatul kër ga la way jur yi waroon a def ci moom ba mu sopp way jur yi sëriñ bi moo ko def ci moom moom mu mujj jël cofeel gi jox ko sëriñ bi loolu la mam confirmé ne man nag maa ngi yàlla bi ma yàlla waxee dama waroona a bàyyi xel wayju far yàlla def wayjur wi ma bara bàyyi xel mooy sama sëriñ daan ne man na alayna bi cheikhin walidin rahimin bardin atuufin muxiisin minhu tajwidu xoolal melokaan yu rafet yooyu moom alaaji Mansour ne na man na xéewale na tabaatu man na yàlla yonent bi sallallahu alayhi lako la mas a wax لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم يلا لنا لا بالله لا والله لا تالله يلا يوخد باب لام غوغو لول لي سيغنيفي يلا لنا لا بالله لا والله لا تالله قد تدق دق بعثه من قيولنا مم يلا عليهم تيين جلدي أمة محمد فيهم تيين بير لكو جلي رسولا أب يننتبي وصلى الله عليه وسلم منك قيول تيين كون يننتبي قيول لتنين با قيول لتنين نتكنا كنا يلا دولة خيولة ما يق خيول جو baat boobu yàlla waxoon yonent bi ne laqat man na moom la moom alaaji Mansour ab ne yàlla ni mu réyee ak ni mu tolle bi muy tagg rasulaay ne xéewal la ci ñun baatu xat kon man alaaji Mansour man na xéewale na alay naa ci ñun mooy njabootu alxaaji Malik bi ñaar ñaari njaboot la am ñi mu jur ci ak ñim ñuñ ko jural mooy ak man taalibe yi ñun taalibe ñooy ñaareelu doom eh, bismillah waxaale ji bu ñu mënee dimbali ci man na mam man na man na xéewale na alay na ci ñun bi cheikhin ci sëriñ gis nga bi cheikhin da koo tanwin bi cheikhin bi cheikhin mooy mooy sëriñ boo xam ne day jàngale day yar da yéege nit ki ci wàllu yàlla loolu mooy bi cheikhin mm. waaye ni mu nekkee cheikhin waalidin mooy sunu wayjur waalidin gis nga waalidin mm-hmm. lu tax mu tanwin ko mooy lim ci jublu mooy ñaari wayjuram mooy mam alaaji malik ak mam safiyatu moo tax mu ni waalidin ah, xam nga waliday walidayni la warona wax mais way wi atnako motax moo ni walidin man na alayna bi cheikhin walidin way jur wo xamni rahimin ku beuri yermal la ci njabootam mam cheikh alxaaji malik xala nim def mam ali yun rek waxuma seigne babakar de waxuma njabootam talibem booy wax seigne ali yun géy niko ko alxaaji malik def ba mu ne a suleymaanu amrin musawiyun bi najdatin xaliliyu diinin sunniyun li muhammadi pap pap kebe xoolal loolu pap doomu jàmb doomu jàmb nga def ko noonu ba mu mel noonu xam ni tey bu ñu jëlee mbindam teg jël mbindu sëñ Babacar teg mbind mi jënd sëñ Añ Mansour teg danga nga yaakaar ni ñëpp la alaaji Malick jur ci géñoom googu di waxi kuy jàngale ci deretam sax ju sell ji ngeen baal ma ci deretam ju sell jooju mu ni Seex Alxaaji Malick noonu la mel Seex Alxaaji Malick ñeenti mbubbu yonent man sëñ Alioune Guèye maa koy seede maa ko jàng ndax moo ma jàngal moom lañ ko solal ba léegi jaxaay lànk na nee na du naaw jaxaay lu la te xaj ba léegi wanewul boppam mu ni tekk tekkaaram googu rek moom Cheikh Alxaaji Malik wanewul mukk lu tax suleymaanu amrin nguur ga suleymaan amoon Cheikh Alxaaji Malik yàlla teg na ko ci loxo musa wi yun bi najdatin xam-xamu muusa ba ak dëgër fit gaag ñeme ga alxaaji Malik làq na ko man maa man sëñ Aline Gueye ndax moo ma yar xalili yu diinin tawxiid gi nekkoon ci sayiduna ibrahima cheikh alxaaji malik ferenkulaayu na ci waaye nag bi gën a doy waar mooy sunniyun li muhammadi fa yonent bi tegoon tànkam la teg tànkam allahu akbar macha allah te kooku du doomam waaye doomu ruuxam la ndax dañ ko koo jóolal sëñ Aliou Ngay mag ñi nee nañu dafa naqari woon xel dafa naqari woon xel waaye bi mu ñëwee Cheikh Hadji Malick ba toog gis ko mujj gi bu góor gi di jàngale mu yóbbu téere yi góor gis ko ni mu saware ci yóbbu téere yi rek mu daal di koy sol téere yi rek mm-hmm. <laughs> mu kon nag paap di nga ci ni ndekete base mooy yar suñu doom yi jàngal suñu doom yi at euh, dugal leen xam leen xam loo leen mbokk yi seen mbokk nit day xam mbokkam ndax mbokk alalu yàlla alalu yàlla la nee na soo ko defee nag doom jooju su amee vingt et day ñëw ci papa ni la papa nga ni ko la béyka mun la papa bul fayati courant papa bul fayati ndox papa bul jëndati jasneer papa daal yow li ma bëgg yow del dox mbokk gi rek yow daal bis boo xëyee demal kër diw nga jot ki sa mbokk bul solati mm-hmm. dara bul laaj tey tamit argent de poche bés bu ne nangam laa la ci defal mm-hmm. léegi nag foofu lañu wax ni papa moom ak doom wàcc na ko ci vingt et un ans la ko wàcc su ko defee mm-hmm. wàcc na ko deful wàcc na ko kon ak wayjur wu góor ci doom ci vingt et un ans la jeex ak wayjur ci soxna bu ko suulee lay jeex waaye ak doom nag ci wayjur pap du ko wàcc mook papam du ko wàcc mook du ko wàcc balaa muy lekk jox papam ak yaayam balaa muy naan su yore lu muy joxe sax ju papa ji ak yaay ji yàlla nee na jox ko sa yaay hmm. jox ko sa yaay ndeysaan bu dafay nettali benn waay bu ñëwoon ci yonent bi nekk milliardaire waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi gis ni kii dañ ko yar hmm. yar nañ ko jàngal nañ ko xam na xam na àdduna mu ñëw ni yonent bi damaa am xaalis ma ñëw ba kër ga ndeysaan sama xel dem ci sama yaay ndax dama ko bëgg lool loolu yàlla ko def yàlla mooy def doom ju góor yaay lay gën a bëgg baay doom ju jigéen baay lay gën a bëgg yaay loolu yàlla la bu nit ñi dul xam ba léegi mm-hmm. ma ni ma jub kër gi sama xel ne ci sama yaay manin na ko ko jox ma dem ba jub kër gi sama xel daan ni ah sam papa ma jangalon moma fayalon moma yobuma tukki moma utal liggey ah wa kon numay def yonent bi ni ko demal nga jox ko sa papa da ya, demal nga jox ko sa yaay waji ni ah ya yonent bi sam papa jarang la jaar ak man mu ni ko demal nga jox ko sa papa demal demal nga jox ko sa yaay <laughs> yonent bi aka ah, mana jangalé yalla des waji dal di dem dëgër fit rek duggu rek dal di nuyo rek dal di yaay li de khalis la bo xamni mom lañ ma fay mani won woon ko yaay ji tie khalis bi tie ci loxo yobu yóbbu ci bay ñew ci pap ki ni ko ah pap ah kontan na ci yow de sa dom ji gis nga sa dom ji waxu sama dom ji da jigen da bax ah mhm. sa dom ji de mo ñew legi salaire am bi de leekati jox mako waye nek ganaar ak tuuji borom ganaar ak mom yow yaay sunu aca am papa ji nit nek khalis bi téye ne ko li de da ngeen na def yoon bi len yalla sant waye soxlaw ma ci dara man man na sama bok yaay yow ya juron ya sonnon billahi jigen ñi sonn nañu ah ramata ñi sonn nañu ha ah, jigen ñi sonn a ah, aja aja khadi jigen ñi sonn nañu mais lii fan lañ koy amee fan mu ni mu daal ni ko ah yaay moo juróon joxal ñu jël xaaj bi teg ci loxo yaay waaw léegi la yonent bi waxoon rek la wuwul waaw rek la ko jaarale fiñ ko war a jaarale lu tax xale bi dañ ko yar jàngal ko xamal ko àdduna bi mu jaaxle mu dem woo yonent bi salaay salaam keneen ki ñoo ni ko man de dama yor ay milliards sam papa lu mu bëgg lu ne def naa ko waye dal daf may sonal ci laaj suba laaj ngol laaj guddi laaj bëccëg pa bi dal kenn mënu ko comprendre mu ni ko mm. demal nga jël alal ji yépp ak sa jëm yow ko ci boom jox sa papa mu fu ko neex mu ñor dina al malu li abika anta yow wa maluka ak sa alal li abika sa papa leen mo mata pap tay ci sharia sa sa papa ñewon ci sa neek fekk sa alal mu jël ca dem ca jakka joxe ko fa wala mu jënde ko lu ko neex hmm. yow l'islam du ko ci wax dara moko mom waye tay yow mom bo demone ci sa alal papa nga jël ci sa papa dana la yow bu police mom hmm. la yalla di wax anta yow wa maluka ak sa alal li abika sa papa ko mom lan motax xale bi tay waccok way moy way jur bi da ko yar way jur wi da koo jàngal war jur da koo xamal ay mbokkam ba mu tedd mu wëcc ku jël teraanga ja ne papa noppal naa la bul fayati courant bul fayati ndox bul fayati dund yow lenn rek laa la sant papa toogal fii di jokk sa mbokk rek foo déggee ñu ni ngénte am na demal jasneer ba ngay sol maa la koy jox foofu nag lañu wax ni la alaaji Mansour tolloon boo tax mu ni fardun alal ibni shukrul walidayni wa antal walidul barru yaa ustaasu yow jàngalekatu sindiidu sang yi yow sangu-sangu yi sindiidu mooy firi sang hmm. yaa ustaasu yow ustaasu sindiidu sang yi bu sang yépp dajee ñëpp di ñu baax ñu leen di raamal ak sukkal bu Cheikh Alxaaji Malik ñooy ñoom ñëpp ñu jóg maaj apprécier ko Alaaji Malik toog ñu soog a toog waxuma ko maam Haadi moo ko wax maam haadi mu ni hali shuyuuxu sëriñ ñépp laa wax in jallat maratibu lu ñu rëy rëy ay daraj buñ ñëwee ci mbooloo illa talamis illa ibnu usmaana élève la ñuy doon jamono buñ taseeg cheikh alxaaji malik te booba sëriñ yi bari nañu mm-hmm. kon alxaaji pap loolu mooy yar ci lislaam loolu mooy jàngale ci lislaam loolu mooy toppatoo ak bokk ci lislaam kon xale bi soo bëggee mu wàccoog yow jur bi wàccool ak moom ba pare jamono jii nag wayjur yi dañoo wàcc yu ci bari ci ñoom bokk ci waxit lu bari ci jur yi talatuñu xale yi talatuñu yar nañ dem uti rek ñëw yafal yafal lañuy def yafal mais yaratuñu mm. moo tax bu xale yi màggee rek yafal mbëkke mbëkke rek mbëkke mm. loolu nag moo am ci suñu jamono ji muy ci ku jigéen ki di ko ci ci ku góor kon way jur yi d'abord buñ joxee xale yi seen gëdd bu xale yi màggee wàccoog ñoom kon nag lii moo desoon ci thème bi ñu waroon koo àggale sëriñ bi kon nag thème baa ngi noonu ngeen baal ñu xaq wasalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Seydina Cheikh jële di wax ah macha allah fa tabarakallahu di nga xamante ne diggante jeudi ak tey surtout tey eh, di nga ci fi indi macha allah fa tabarakallahu eh, nit ñi dinañ ci mën a jàngat lu bëri. Mm-hmm. Eh, xam naa nag dañu nag fi nga xamante ne xëy na nit ñi dina am ñi nga xamante ne dañuy dina am lu ñuy bëgg di laaj. waaye balaa li may bëgg def rek moo di balaa may jàll ci nit ñi. Eh, waaw benn question rek laa am lu bu mu la bëgg laaj. waaw. ci eh, ba ngay wax ne nit ñi tey dañoo talatul dara. fi ngay daanale. boobu hmm. mooy wér sama question bu après ci kanam bu amee beneen dinaa bàyyi. incha ne nit ñi léegi dañu talatul dara dañuy yafal rek. Hmm. dañuy yafal rek dañuy yafal dañuy yafal rek. Hmm. Eh, bu fekkee ne ci waay jur bu góor bi nga xamante ne xëy na moom mooy. moom la moom la suñu borom wax ne ko mhm. ne dem wuti di indi waaw ah kon foofu jar est-ce que jarul kon ku góor ki bu fekkee ne kon bu buy dem di tànni soxna mu dem comme moom dafay dem di wuti rek di yafal bu fekkee yafal moo ko tax kon mu wut mu ndax ndax gënal ci mu mu tànn soxna bi nga xamante ne wóor na ne ki bu ko baye bi bu ko baye ak njabootam lamu bëgg ci njabootam dina dina ko ko defal ci yar bi ci di ci diine bi wala ci leneen waaw waaw parce que parce que jigen ay yar mu dem dal di uti hmm. uti jigen ju mel non effectivement wallahi hmm, hmm, waaw waaw comme mom day dem di genn di wuti talul lu bari te jigen la yalla yarlo kon mom na tan soxna su bax noppal bopam ما شاء ما شاء الله ما شاء الله xanaa waaw léegi nag xanaa di ubbi micro di ya, wax ne ku nga xamante ne am na question bu mu bëgg laaj bu ko defee rek mën a mën a mën a daal di ubbi micro wala wala mu yëkkati mu yëkkati loxo sëñ baara baara rek dang dang maa gën a sawar rek waaye li ngay def bëgg sëñ Cheikh maa ngi bu baax waay. maa ngi lay delloo ziar na nga def. waaw ñu ngi lay ziar gën a sawar rek. waaye maa la gën a bëgg def loolu. macha allah waaw noonu la. yeneen bi digle na ko yeneen digle na bu baax a baax sport. sallallahu alayhi wa day defar yaram day am kattan macha allah. tabarakallah ah soxna Xadijatu ayca waay yéen jigéen ñi man yéenay sama xarit laaj leen waay ci yéen laa gën sawar de dama foog ne xaaj baara dafa am lu mu lu mu bëggoon a laaj baara aha baara waaw moom de dafa mel ni waaye xëy na fi mu ne fi mu nekke xëy na kiiw fi moo tax ma ngay defar yaram moomu waaw waaw waaw waaw Adja Fatou Kayta ayca bismillah waa léegi c'est nécessaire waaye xam nga tamit ci ci ci sànq euh, bi nga xaw ma euh, xëy na xëy na am na xëy sax kii woo ci torop mais am na mm-hmm. ci nga xamante ne diggante aussi tam euh, doom la ak ak ak ak jur defe naa ne mag am na am na njàngal li nga xamante ne xëy na bàyyi nañ ko fi tamit moo di li li war li nga xamante ne dafa war doom ji ci diggante moom ak wayjuram gannaaw xëy na gannaaw xëy na comme li nga wax sànq sa sa baay sa sa jur wu góor di jégalu mm. ci wax bi sa way wayjur wu góor alalam mm-hmm. du sa alal waaye mm-hmm. moo sa alal alal alalam la waaye mm-hmm. ani yeneen li nga xamante ne ani leneen li nga xamante ne mag ñi eh, eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko leneen li nga xamante ne eh, diggante wayjur la digënté doom la wayjur eh, ak doom manam doom bi la moy akam digënté digënté doom ci way xam nga wayjur ak doom mom détaillé na ko bu baax baax mais diggante doom digënté doom ak wayjur waaw moy moy bu bu bu mukk ta sa papa mm-hmm. bu bumul naan mukk ta sa papa naanul mm-hmm. bul sol yére mukk ta sa papa sol lu mm-hmm. amul lenn lo xamni lu ko war la lu mana def te yow nga war ko def di ko njëkk def sa pap nakoy sa pap di njëkk def yow nga di ko soog def benen bi moy bu tëdd jotee ta nga am pap nga bok ak keur muy kilifa na mak sa yaay nang da ngay dem waxtaan ak ñoom ba heure tëdd jot mu wër na la ni ñii moom daanaka bo doon genn rek ñu daldi nelaw nga nelaw yow nga dem sa kër daldi régler sa réveil montre sa papa 4 e e heures la tàmm yow wala 5 heures yow 4 heures demi na fek nga jóg daw dem xooli ko soo demee ñun la juga nga tok xaar ko su jógee nag nga dugg papa na nga def naka yaram bi naka nga fanaane assisté ko lu mu soxla wax la ko nga taxaw ca góor da koy e defal papam. ak yaayam jigé nit da koy defal papam. ak yaayam loolu la sharia wax ci àqu doom ci way juróom su feebaree nga taxawu ko su amee ordonnance nga jënd ko lépp loo xam ne moom mooy soxla àddunaam nga taxaw ci suba taxaw ci ngoon bu la yónnee nga gaaw daw dem doxi yónnent ba soo jógee ñëw seet si ko papa ndax amoo looy lu tey mun la a ah, déedéet nga dem ci sa yaay waaw yaay tey loo soxla woon tey noonu ñu la doon yor bi nga nekkee xale mënaloo mhm. sa bopp dara ñu veillé ci yow lu ne def ko ci yow ngir rek nga mën a dund dund gu neex ma joxe ci benn anecdote xam na yàgg ngeen koo dégg sax waaye jàngale moom jàngale la rek fàttali la mhm. benn waay dafa demoon màkka ànd ak yaayam yaayam mage lool mhm. waa ji dem ànd ak yaayam màkka yaay waa ji di ko boot di yóbbu di boot safa ak marwa boot muna lu ne waji bi mu ko doon defal yaayam daf ko boot defandoo ko ak yaayam bi aj makka ga jeexee nag waji ñëw ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yonent bi mu ne ko labbayka ndax yonent bi labbayka la daan wuyoo paap maam cheikh mhm. alhaaj malik radiyallahu anhu neena yonent bi kenn su ko wo ludul wax na la labbayka waaw wama yujibu شفيع الخلق داعيه إلا بلبيك في ترحيبه الجمم وما يجيب مسلوي شفيع الخلق كيرم من في ألك ميانة بداعيه أجي وجوكو إلا بلبيك لدول دفني لبيك moo tax ñu ni labbayka ku koy wuyoo am na nombre de labbayka yooyu am doo dugg biir bàmmeel mukk te demoo ziyaara ji waaw te demoo màkk لبيك لبيك اللهم لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كن يونت بي نون لا دان ويو موني كو واو داما لا وودي غاني ما لبيك ماني كو واو صلى الله عليه وسلم موني كو داما لا نخ ني واتيو ناك سما ياي يونت بي نيكو ياو غاني لا ياو mu ni ko dama ni wàccoo naak sama yaay laa mu ni ko yow doo def bay wàccoog sa yaay mu ni ko yóbbu naa ko màkk lépp lu may def man bi ma koy def dama ka bot defandoo ko ak moom yonent bi ni ko waaw kaay te bul ma fen wax ma dëgg bi nga waree kaaba ba am ñeenti yoon yonent bi yàlla da koo xamal li jaam yi di wax xamal ko dënnu jaam yi xamal ko li nekk ci seen xel yaalamu maa bayna ay diihim wa maa xalfahum yonent bi xam na gannaaw xam kanam suñu jamono nii ñuy dérouler yonent bi yàlla tegaloon na ko film bi ba pare xamoon na ni mujj jamono nii lay diine di mel dina am ñu góorgóorlu mais dina am ñu bañ diine dina jaxasoo yonent bi yàlla jàngaloon na ko loolu bi mu ñëwee mu ne ko bi nga wëree Kaaba ga ba am ñeenti wër lan nga wax waxuma xalaat ci sa xel de da nga koo xalaat ba pare wax ko lan nga wax yéen tamit waa ji ne ko ay la yéwén dama dama ne ay waay sama yaay yellonte woon nag mu dee fii màkk ma gas ko suul ndax am naa yoolu aj màkk mu ne ko waaw kat wax nga ma dëgg mu ne ko xam nga yow loolu nga wax mu ne ko ah, mu ne ko yow sa yaay am na bés mu tëdd sa way jur wu góor ci lal bi di nelaw ñu toog ba ci yàgg rek yaay xam ni yow li nga lekkoon ci bëccëg gi def na mm-hmm. effet ci guddi gi mu mu xalaat la rek xam ni yow dangaa war a dem toilette sa yaay mm-hmm. jóg ci guddi gi xool couche bi gis ni dangaa dem toilette mu daal di jóg dugg ci toilette yi sang laba nga set rafetal la ba nga rafet parfumé la nga parfumé mu solal lu yu rafet dal di ñew jël wénam jox la di la xool te naan ay way yalla yalla ma ngi lay ñaan sama doom ji yalla na mag ba tekki ba noppal bopam gis nga waxul sax ba noppal ma man ba noppal bopam ndax fi ne ku wul noppalo sa tekki wul noppalo sa bop ta tekki likoy may moy am mécc pap ñu fonkan mécc xam nga yeen dik gi ngeen dik fofu tax ngeen def lu ngeen am bokko ko jaamu yalla ci ak li ngeen di dundé loolu moo indi li ñuy wax itfa ngeen mm-hmm. jël seen alal di ko ci def ta xam ni defalu leen ko Cheikh Al Hadji malik defalu leen ko sëtam bu tedd boobu waaye seen bopp ngeen ko defal lu tax ngeen di ko defal seen bopp ba tax ngeen di cotiser jigéen ak góor dajale ngir Al Hadji Malik tabaxal ko fi jàkk ju rafet joju seen bopp ngeen ko tabaxal lu tax yàlla nee na benn tibb soo ko joxee doomu aadama mu lekk ko yàlla nee na moo ma gënal tabaxal ma junniy jàkk benn tibb waaw muddu xatun li jaa'in xayrun min binaa'i alfi masjidin noonu la ko waxee yonent bi waaw léegi yow ñetteelu position yàlla lu muy wax bu ko njëkkewul da koy mujjee lu tax importance bu mu am moo tax mu mujje ko nee na képp ku gëm xay bi mooy yàlla te gisoo ko bu julli jotee nga fonk sa julli neena ba ca des mooy nga génn li nga am participer ko ci diine ji neena ki génn alalam nag participer ko ci diine moo ëpp doole ñaar yu njëkkalim julli gi lu mu bari bari lu mu for for sa alal bokkoo ko jaamu yàlla yi zero zero zero mm-hmm. zero alif lam mim pap kebe moom la yàlla wax ذلك الكتاب mm-hmm. la rayba fihi هدى للمتقين الذين نيغا خامني يؤمنون بالغيب بي گم نان يالا ديكو جام ويقيمون الصلاه فني دج نود داو ديم ساخال جولي واي بوك تي ومما رزقناهم ينفقون ني ديبانسي سين علال مما تي لاغا خامنتني رزقناهم يالا وسغل نلن كو باب لي لين يالا وسغل كون يين لي نين دي گيني سين علال ديكو دوجال فوفو te Sid Ahmed di superviser lépp defalu leen ko ko seen bopp ngeen ko defal ndax yéenay fayeeku man amila képp ku jëf saalihan jëf ju yiw te mooy génne sa alal joxe ci yàllu yàlla fa na xam ni li nafsihi boppam la ko defal yàlla waxaat ci beneen aaya ci génne sa wërsëg di ko ci lislaam inna alladina yatluuna kitab wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabuura yàlla nee na ñuy jàng alquran gëm yàlla tax ñuy jàng alquran tax yàlla santaane ñu jàng alquran ndax alif lam mim dhalika alkitaabu téere boobu laa rayba fiihi nekk ci hudan jëmmi njub la lil muttaqina ñeel ñi bëgg yàlla hmm. mu ni comme yàllaa ko digle wa aqaamu salaata ñuy saxal julli juróom buñ déggee nott te amuñu benn ngant wa mm. anfaqu ñuy dépenser mimma razaqnaahum ci li leen yàlla jox benn mm. sirran ñu woo waa ji ci pet imam jox ko seg bu am solo te kenn du ko yëg wa alaaniyatan ak dem ca jàkk ja ni ah somme d'argent bii ñoo ko génne def ko participation ci jàkk ji yàlla ne na ñoom ñaan ñëpp am nañ yiw ndax dafa am ci lislaam alal yoo xam ni boo koy joxe kenn du ko yëg waaye am ci lislaam alal yoo xam ne boo koy joxee na ko ñëpp yëg lu melni ni ci wawal ñu ni ñu ngi laaj lu fa dem alal ja ngay génne di ko joxe na ko ñëpp yëg waaye nag mhm. waaye nag sëriñ baa ngi foofu nekk ak yéen laaju leen addiya maamam de moog yéen yéen a bokk lépp waaye yéen mhm. maamam ngeen ko waroon a jox gisu ko ngeen jàpp ci moom bu ngeen ko koy jox bu ko kenn yëg bu ko kenn yëg wa mimma razaqnahum yarjuna ñuy yaakaar tijaratan commerce bu dul dagg ngir bari bénéfice lanta burata du lamb kon yàlla nee na ku ñëw jàng alxuraan ma fay la ku julli ma fay la waaye ku jël alal ku jël alal def ko ci diine lislaam yàlla neen du ma fay dama lay woo ñu bokk fu ñu dëkk maak yow macha allah doole la joo xam ne moom la waa ji ci boppam ñëwoon yàlla ni ko ku jigéen ki yonent bi di wax ni ko yàlla nga màgg ba tekki ba so ba noppal sa bopp loolu mooy wax ndax jamono léegi ji moom amul dara loo dundee di nga sonal sa bopp sonal nit ñi léegi nag mm-hmm. yonent bi ne ko waxal ndax mën ngaa fay sa bor yaay moom mi la nàmpal bëgg nga tekk yow nga koy wërloo kaa bëgg bëgg mu dee ndax ñaari idée yi ñaari xalaat yi bokk nañu waa ji ni ko déedéet mu ni ko laggal loo defoon yàqu na tey jii ngay soog a commencé waat ci def yiw ci sa yaay aca doxal kon ndekete àqu doom ci wéyjur paap laa ne la kenn xamul nu mu tol waaye nag dafay am lu ko jiitu mooy papa ji ak yaay ji ñun njëkk a fay jox ak xam bokk na ca tur ak xam bokk na ca ngénte ko ak bokk na ca reyal ko xar ak xam bokk na ca wat ko ba mu set ak xam na ci wutal ko way jur wu jigen ak xam na ci nga yar ko ak xam na ci nga jangal ko ak xam na ci nga xamal ko aduna su boba nak yow sa ak jeex na ci mom mom mo la deseel ak waye bu de yow way jur wi ku jigen ki ak ku gor ki li defu len ko ci dom mu mag mel nenen musan su ngeen waxe mu bañ su ngeen waxe mu sanni len su ngeen waxe mu ni uff ni alquran wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman day fekk mm-hmm. nga ji ko ci nga ji ko ci xale bi lu tax faa amul naka jiitoo baaxul woon ah uh-huh. uh-huh. naka jiitoo moo baaxul woon ah. maanaam la ko jiitu moo baax woon. maanaam xëy na waajur ba la ma waroon a def defu defu ko. defu ko moo tax xaw ma lan sa jëkkër xaw ma yàq say doom nu ko gars yi di waxi olof. ku xas sa jëkkër xaw ma lan xaw ma xaw ah, ma olof boobu xaw na def naa na. Uh-huh. soo dégg bëggee xale bi rendre la moo ne ëllëg. Mm-hmm. jiital la loolu ci maanaam da koy jàngal. yar ko ba pare di dem xamal ko mbokk gi kon su magge lolou rek la lay meuna jox su dee yi ñak nako na dafa am benn wo benn xalé bu massa xam na est-ce que netali wu mako won ci bi passé xale bi ngay dugg foofu bala ngay dugg foofu dafa melni am na ko yëkkati loxoom waaw ñu may ko rek suñu yaay suñu yaay la Adja Fatou Keita ah tata Fatou ay xanaa wa régie dimbali ko mm-hmm. parce que bi mu yëkkatee loxo bi xaw na xaw na xaw na yàgg tuuti ah d'accord xaw na yàgg tuuti bismillah Adja Fatou yaa ngi waaw ñu ñu ñu ñu continuer après bu ñëwee rek mu mu mu dabaatal. beneen bi tamit anecdote la rek comme bu mel ni bi ma joxe woon sànq fële. benn waaye mhm. dafa ñëw poñe poñe papam la poñe papam. allo poñe ko ba. Ah, waaw Adja Fatou Keita. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala. waaw maa ngi ziare sëriñ bi sant si si Malick maa ngi lay ziar. Cheikh Ahmed Tidiane waaw yaay maa ngi lay ziar Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay ziar bu baakha baax a baax koy delo allah Yalla nako Yalla yàlla Ke wax nga yu bari te maa jël suma nuyo bi waaw ci bu waaw Ahmed sëriñ Ahmed si ak soxnaam waaw suñu sëriñ bi mom moy ki nga xam mo ngi ñu fi togal fi bépp julit bu nekk États-Unis mm-hmm. ndeysaan sëriñ bi duy tànqam lu kenn même bu feebaree du jóg mm-hmm. kon ñu ngi sàkku ñaan ci wàtti waawoon ñu gën koo ñaanal incha allah taalibe yi ñu gën koo ñaanal yàlla ko fi yàlla yàggal may ko wér ak wérle boobu njobootam gi lu xew ci États-Unis bi la nii même bu feebaree dina taxaw nit nag doo ko xam ba gën koo jegeñ niñ koy gis nii ci zoom bi dina métti fekk sax mu ngi am lu koy métti mu ngi mm-hmm. toog ak ñun mm-hmm, kon yal na ko may li nga xam ne moom lay mébit amin fi mu nga ci diina bi yal na fa yegg allahumma laal nga waxtaan bu rëy bu am solo bu bu am ite boo xam ne njàngale waat nga mm-hmm. jërëjëf jërëjëf di am ci suñ biir tusuur mm-hmm. moo tax bu nit ñi demee julli àjjuma mm-hmm. imaam bi di xutba xutba mm-hmm. is a kind dafa mel ni dañuy fàttali nit ñi li ne mm-hmm. waxoon nañ ko waxaat ko mm-hmm. di ko waxaat doomi aadama moo mel noonu nga gaaw na waaw fàtte gaaw na moo tax ñuy gën a jàngale di jàngale waat mm, laal nga ci famille laal nga ci diggante ndey baay doom yaay eh, eh, doom ak Mm. waaye laal nga ci li nga xam ne wax nga dëgg jigéen ñi sonn nañ waaw sonn nañu nañ foofu waxantoo woo wax nga ko wallaay dama koy dund rek a leen di fay yéen yéen waaw wallahi wallahi xam mm. naa nag ne suñu suñ càmmiñ ñi dégloo mm-hmm. ah <clears throat> war nañoo jàng fii njàngat boo xam ne dëgg la de war nañu ko jàngal seen doom because doom rôle modèle mooy waajuram yi moo tax suñ nekkee fii ak suñ njaboot yi ñu mhm. bàyyi xel bu baax wallaay ndeysaan am li ñu yàlla dénka te ñu bàyyi xel ci ñoom bu baax wallaay wallaay ah, tata Fatou de mun nañoo toppandoor imitate ah. xale boo xam ne ñeenti at la am sax wala mhm. ñetti at la am sax mu ngee toppandoor yaay ji wala papa ji waaw moo tax lu boo koy lu baax ngay wax lu baax ngay def booy julli sax yow julli ngay sax day ñëw lal si jaada bi ànd ak yow di julli waaye si si si wax nga wax nga waaye suñ càmmiñ yenn yu bëree bëri juum nañ gaa ñu ngee juum ah, seetaan nañ leen a muñ Ah, yàlla leen yàlla leen yàlla yàlla leen yàlla ah. def seytaane déddale déddu ak ñoom amiin xaw ma mun a waxee ndax yàlla jox seytaane jox leen gannaaw jox leen <laughs> ne am na góor yi nga xam ne ñu ngi essayé ñu ngi try waaye am ah, na jigéen xam ne dañ bàyyi jabari rek sëriñ bi jabar ji mooy nekk waañ bi jabar ji mooy dem liggéeyi jabar ji mooy def fifty fifty yenn ay jabar ji sax mooy def seventy twenty wallahi anything kon ñaanalal jigéen yi soxna yi nekk ci États-Unis gi la nii wala Europe wallahi may leen kattan gi may leen doole gi yàlla wéral cër yi yàlla ñu fa yàq àggut waaye sa waxtaan bi neex na ay xob ne ñu jàngee jàng jànga ah, ci wax ci sa waxtaan bi jërëjëf bu bari waaye maa ngi may leneen chance ñu wax waaye yàlla wér ak wérle yow mi nga yow yaa ñëw ci radio bi tey di wax may nga dunda ba lekk sa njëriñi doom yi sëti ak sa sëtaat yi mi nga xam ne ñëpp ñu ngi lay déglu tey amiin na jàngat bi ngay jàngale nii tey wallaay nañu yàlla xalaat lañu xalaat yalla bu gëna doomi adama li gën ci adina si ci doomi adama la gëna bu ka kon nañ leen jël diina bii nii ñu hmm. taf ko si suñu dënna oh, ñu jël eh, I don't know how to call it suñ ne oh. njëganaayoo ko mooy ne soit yoo jógee yaa alxuraan soo ko munee saa yoo tëddee yaa alxuraan balaa you know because waxi yàlla la te boo ko riidee wallahi dina la su fekkee ne buga ngaa yeewu wallahi wallahi ci njàng su fekkee ne bugga ngaa jàng kontaan nañu tey moom yal nañu yàlla gën a dégëral ci diine bi ngeen ma maa lay nuyu di la ziyaar di si Ahmed Sëriñ Ahmed si ak soxna boobu noonu asalaama ak ki xam ne mooy sa ki dalal noonu پاپکێ پاپکێ سەحنا خەدیجە تو دێگە گومە لە دێ ئەجا مەلاج مەسوود نیا ئەچە بۆ Papteken gaay dafa mel ni gaay ñu ngi ci affaire bi bu baax de gis naa ci pap bay ñu ngi lay ñu ngi lay déglu bu eh, baax pap bay bu dee mu ngi fi xëy na xëy na di ñàkk pap bay gis naa ko de waaw waaw xëy na du ñàkk am xëy na du ñàkk dina dina dabaatal. waaye beneen bi non maa ngi déglu damay déglu waxtaan bi waxtaan bi wax am solo lool. papa maa ngi déglu maa ngi lay ziar bu baax. waaw d' accord incha allah maa amin amin amin amin amin amin amin amin. waaw kay anecdote bi mo bëggoon a joxe waat am na ko am na ko bi micro soxna Xadijatu Aja Xadijatu Kende waaw Aja Xadi bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp di leen baalu ak di leen baalu yalla yalla nangu ziar baal nañ la yalla nañ yàlla boole baal allahumma amin légui dama doon laaj fekkewu ma nag lu bari légui laa dugg dama doon laaj bu fekkee yaa jàpp parce que ñun fii ñuy liggéey léeg-léeg booy ñëw damay indaale jàpp mais léeg-léeg nga dugg ci duus bi doo def dara nag pour simmeeku rek pour changer sa yére sa waaw waaw yére yi ngay liggéey sol yeneen léegi bu fekkee jot na ngay julli dafay soxlawaat ngay jàpp wala jàpp bi déedéet soxla wul fii ak njàpp li yàquwul rek soxlawul loolu ah macha allah waaw parce que daf may faral di daal waaw macha allah rek bu doon góor la nag muy summeeku loxom laal ci eh, terangam bi ko yàlla jox su boobaa moom day dem jàppiwaat moom mhm. bu dee góor la waaye jigéen moom amatul waaw jërëjëf ñu ngi ne ñu ngi kontaan bu baax ci waxtaan jërëjëf sa xadi jërëjëf yow sama maam nga xadi jëf maam ah, ah masha allah fa tabarakallah waaye dafa mel ni sànq am na kenn ku ma gisul mu yëkkati soxna maam waaw acca bismillah waaw jaaju wala waaw dafa melni dafa genn mais c'est cher bu fekké ne xëy na amul kenn kuy laaj waaw amna Abdou sëñ Abdou da nga ubi wala na abdou waaw am amna laaj bu may laaj tamit waaw xam nga wax nañu tamit digënté dom lan mo war dom ci waay juram waaw waaye dama bëgg fekkee ne xëy na mën nga indi fi nga xamante ne nag da nga hmm. fekk xëy na sa eh, manam maanaam doom bi nga xamantene dafa dem ba eh, wajur ay waajuram génn genn nañu aduna amna na li nga xamantene suñu borom lumu lumu lu mu lu mu lu mu bàyyi ci lolu batay lo xamne dafa top dom ci même bu sa waajur genné aduna waaw kan bepp dom goor ak jigen mag ak ndaw bu mu mën mhm. a bu sa waajur genné aduna àq ja day continuer du wacc du la wacc ba kërom nga koy fekki. Mhm. ji moy lan nga diko ñaanal diko gennel ay sarax diko ñaanal diko gennel ay sarax Sarah ñaanal diko gennel ay sarax sarax nak moy lim gënoon bëgg manam sa papa bi muy dund yap la bëggoon nga rendil ko yap saraxel ko ko sa yaay laax la bëggoon bu am soow mu neex nga saraxel ko la xalé yi lekk ko nga diko ñaanal ñaanal gogu nak am na xamni liñu préféré li ya tata Fatou kayta wax léegi moy jang alquran moo waral nit ki anniversaire génn àddunaam ñëw ñu wàcceel ko alquran kaamin ñaanal ko loolu sharia bëgg na képp wayjur ku koy defal doom sharia bëgg na wayjur doom bu koy defal wayjur di koy defal wayjur par exemple tey soo génnoon àdduna te sa papa ñaanalu la yow du tee di nga am yiw ndax papa moom su la ñaanalee am nga yiw su la ñaanalul am nga yiw mais yow nag su sa papa génnee àdduna la sa yaay soo ko ñaanalul amoo yiw sallallahu alayhi wasallam neena képp ku am alal muy milliard mu nekk milliardaire mu bëgg milliards yi teel a jeex teel a yàqu fàtteel ñaanal say ñaari wayjur soo fàttee ñaanal say ñaari wayjur rek alal ja léegi mu pasar pasaree jeex takk waaw mm-hmm. mu ne waaye képp koo xam ni dafa am tuuti alal bëgg mu barkeel nay ñaanal ñaari wayjuram ndax alal ja barkeel kon dom. àq ci doom ci way juróom wu mu di ko mm. ñaanal ba keroog mu koy fekki mu di ko génneel ay sarax ba keroog mu koy fekki loolu sharia moom la wax waaw mm. macha allah yow da nga gën a complété waxtaan waaw ci foofu tamit def naa ne am na benn benn ci benn téere sax bu ma bu mës a gis ñu ne tamit même ci loolu lu ma bëgg la yokk la rek waaw tamit woy eh, doom bi neyu aussi tamit di bañ di fàttali ak waajuram bi génn àdduna bañ di fàttali xëy na waxtaan boo xamante ne wala wax bi nga xamante ne eh, sa waajur fu mu tëdd bu déggoon wax boobu du maanaam du ko du ko neex maanaam damay para mhm. loolu mooy gannaaw bi mu la fi bàyyee del wax lu rafet di jëf lu rafet di jëflante lu rafet ndax mhm. lépp waajur wu góor ak wu jigéen bu ñu génnee àdduna seen njaboot lépp lu ñu def yàlla daf leen di may ñu am capacité jàkkaarloog seeni njaboot di xool la ñuy def ndax jub na wala jubul yàlla may na leen capacité boobu moo tax seeni ji di xëccoo miraas ak dëgëra ko daanu xamuñu li xew bu ñu xamoon li xew dañuy jéem a uti alal juñ moo amal seen bopp mais duñ dem di xëccoo miraas def foofu la olof njaay di wax ne doon sa baay moo gën moo gën doon sa moo gën doon aha don sa baay moo gën doon sa nga gis ko nag ci miras koo xam ne dañu pare dara desul ludul miras mu ni man day jéggal naa leen sama wàll kooku don na baayam kay doon na baayam waaw defe naa tamit waaw ci loolu ci loolu tamit am na ci beneen bi nga xamante ne tamit surtout di jëm ci say wayju maanaam ànd seen seen ànd ñu mu daan àndal lan la ci yonente bi jàngale ci loolu waaw yow kat da nga am xam-xam ba pare ñëw di ma jox waaw kañ dañoo dañuy for ni bokk na ci mm-hmm. jikkoy tedd ngay doomu aadama muy mm-hmm. jokk xaritu waajuram yi nga xam ne ñu ngi dund gannaaw bi waajuram génne àdduna mu di leen nemmeeku même bu amul lu mu leen jox sax mu dem di leen nemmeeku di leen nuyu di fees feddaliwaat kóllëre gi papam amoon ak mbokkam yooyu way jur wi tamit ci ku jigéen ki la même chose bëgg nañ muy nemmeeku ji ay mbokk way juram yu jigéen ñi ñu amoon te ñoom mu génn àdduna mu dem di leen jokk su amee lu mu leen jox mu jox leen ñu koy ñaanal yàlla ndax mu gudd fan gis nga pap xale bu bëggee gudd fan nay def lu baax rek ndax ñu koy ñaanal gis nga ñaan yu bari yooyu du ñàkk bu ci yàlla nangu Mm. bu bu téeméeri nit naan yàlla na pap pap Kébé gudd fan yàlla na gudd fan du ñàkk benn yàlla ñu amin kenn ka ñaanam nangu pap am téeméeri at yu ànd ak wér ak wérle ndax ñaan kenn du ko xeeb dafa am doole rawatina nag ñaan goo xam ni say wéyjur ay xaritam yum doon dundal ñoom ñoo mujj nga di nemmeeku ba mujj gi ñu kontaan ci yow di la ñaanal kooku yàlla day nangu ñaan gi mm. Ah, di jadi jadi マシャル。あ、花火ファテル行く、ジェリジョフ、ジェリジョフ、ジェリジョフセナシャ。花火ファテル行く、レクネ、ミクロイウベウベクル、ダファメニハジバラ、ダファデアルシウォラ、ヘナ。サラムアレコム。Waaw Baara Aan Baara Baara Aan wala nga def maa ngi si jàmm alhamdulilah Cheikh wala ngi ziar bu baax sëñ Cheikh la bekke yàlla na yàlla nangu ziar bi maa ngi lay jëfalal nuyoo imam nango Sarr sa sama ko daara waaw bu Bouchra eh Bouchra waaw sama mbokk maanaam waxtaan bi am na solo jaar na yoon wax dëgg yàlla maa ngi koy déglu lépp. fàttali waa jërëjëf waay Baara jërëjëf macha allah xam naa ne lii moom sax daanaka contribution lay nekk rek. waaw waaw waaw. dama koy tënk rek da waxtu bi xam naa léegi mu jeex. incha allah maam incha allah. maanaam dafa am yoo laal yoo xam ne. jamono gi ñu toll nii. sëy yi dañoo takk yi dañoo bare bari waaye tas itam noonu la bare. dëgg la parce que dëgg la de dëgg la. waaw maanaam maa ngi koy wax benn mbokk keroog xam nga dafa am yaakaar naa ñi nga xam ne jaar nañ ci daara dañu xam li may wax maanaam. ñu naan la nag ma defal istixaara. sama mhm. digganteeg ndaw sii. dëgg la xool ko ba xam baax na wala baaxul. waaw ñu naan la maa i yoog naar yoog turaab yoog. xawaa i yoog waaw waaw waaw. léegi ma ne mbokk mi ne des fois mhm. léeg nga def istixaara sax. Mm-hmm. ñaari wërsëg yi man nañ ànd. Mm-hmm. waaye sëy ba la koy doxal si yéen ñaar lay jóge ci yéen laa ci ñe ci yéen laa ñee dugg kañ. ah kañ jamono ji ñu toll ne daal war nañoo xoolaat jikko yi tamit jikko yi. jikko yi rek nag la du leneen. waaw jikko yi nga xam ne nii. waaw am na ñu bari ñoo xam ne parce que sey waaw da dem da ngay jàpp ne jaamu yàlla nga nekk. jamu jaamu yàlla ci suñu thème bu njëkk ba léegi dugaloon naa loolu. waaw jaamu yàlla nag mooy tax ba jàpp ni ndeke se jaamu yàlla na nga soog nag indi yeneen yi waaw waaw waaw waaye nag fi toll nii dafa am yu bari yu si nekk yoo xam daal moo tax ah, nga gis xale yi xale yi bu gisee ñaari fan ñetti fan ñu ne la papa man ñëpp si <laughs> am na yu ci laxasu wallaay am na yu ci de jar na nag comme comme ku mel ni yow ngeen di ci ah. wax baax a baax a baax waaw xam nga tamit léegi sëriñ si ñoom it xam nga gars yi da ngeen leen di listixaarloo ñu wax la loo xam ne daanaka daanaka sa xel du ci dal ak génne loo leen sarax yoo xam ne alal ja day bari ba doog xam nga yooyu tamit daanaka mook listixaar jotewuñ dara dëgg la dëgg la dëgg la léegi nag yooyu mooy li nga wax ni moo tax gaa yi nag di xaw a ragal gaa yi ci listixaar yeeg nangam nangam la wallaay wallaay dëgg la wallaay moo tax xadis ba lañ waroon a jàngale rek ñëpp jàng ko ba mu mënkul di ko defal seen bopp ku ko bëgg a defal rek defal ko sa bopp ni ko yonent bi jàngale woon sallallahu alayhi wa sallam wallaay wax nga dëgg wax wallay wallay parce ñoom mosuñu dugg ci menn mbir même bu ñuy jënd kër sax dañuy listixaar uh-huh. ndax kër ga baax na wala baaxul dëgg la dëgg la waxuma jigéen bi nga xam ne nag moom moo gën kër moo gën lépp wallay dëgg la wallay wallay saan maa ngi fàttaliku sam benn xarit si alxaaji Malick Guèye maam alaaji Malick lañ ko tudde Bushra la jànge moo doon suñu mago daara bi ma gisee sama chéri kooku ba wara a dugg ci moom mu ni ma Serigne Cheikh doo listixaar ma ne ko déedéet moom turam turam listixaar na ko ba pare mu ne ma ah waaye sëñ bi ma ne ko ah, rahmatullahi kañ rahmatullahi kañ jarul ma yërmande yàlla de <laughs> baara wallahi wala loolu la de te xam mi ngi nii sama ndeysaan ci wetam am na Mm-hmm. Eh, waa ji man na mën na bëgg ndaw si lool. Mm-hmm. léegi boo ko a ah, baaxul yow si dalay mere yow dalay mere. <laughs> dalay mere léegi nag moo tax gis nga listixaar daanaka dooni ko baaxul sax danga naan ko ah. ñu day seen nangam déggoowul waaye. boo ci mm-hmm. defee sarax ñaan lu ci xam nga ñaan lu mënul amul. dëgg la. moo tax ñoom ñooñu ñu naan ah listixaar bi baaxul déedéet yàlla nee na dara bonul luñ bonal rek moo fi am. dëgg la ah gis naa ni seeni affaire dëppoowul waaye nag hmm. génneel sarax nga ñaan lu ci yàlla ñaan mën na lu ne dëgg la dañu nekk ay sëriñ mais sëriñ bi dafay manqué benn côté moo tax nag yeneen gaa yi di leen xaw a rasmu foofu dëgg la listi xaaral moom daanaka bëgg na ba takk rek des mu naan la listi xaaral ma kooku da nga naan ko déedéet ah, comme mën nga kàddu listi ci des yow def lu ci ah, ah. ñaan moo kooku kenn du ko listi dëgg la dëgg la nee na daf naan man kat damaa bëggoon a dem mais demaguma xoolal ma ndax baax aha su ko defee loo gis dina ko xam waaw xam nga nag gis nga yu mel noonu li jëm ci listixaar amaa mhm. nag euh, ki xamul mhm. dafay dem ci ki nga xamante ne euh, euh, maanaam sëriñ YouTube laa ko mën a tuddee wala sëriñu bi nga xamante ne xam nga listixaar li ci yonente yi jàngale dafa am nuñ koy defee sallallahu dafa am nuñ koy defee waaw bu bu ko defee listixaar bi ki nga xamante ne bu ko bu déggul wax bi daf mu mm. demee rek dafay dem fi nga xamante ne fa mu warul a mm. dem lay dem dem ci sëriñu benn moodu wala wala sëriñu benn kenn mu daal di koy du ko du ko def uh, waaw waaw ko du def du ko def ni koy ni ko sallallahu alayhi wa sallam ci maanaam ci ci gàttal waaw bu fekkee ne doomu aadama dafa jóg mu ne dama bëgg a soxla te jaamu mm. yàlla rek la tax a jóg tax a jóg waaw mm, nga doon jullit waaw mm, nga jël soxna ci jaamu yàlla waaw la ca des nga dénk ko suñu borom waaye nga xam ne soxna bi nga ah. jël soxna la. waaw nga xam ne soxna bi nga jëli rakkal bu jigéen la. nga jàppee ne soxna bi nga jël dina la féetewoo yaay. waaw nga xam ne soxna bi nga jël dina la féetewoo mag bu jigéen wala càmmin wala rakk bu jigéen. waaw ci jaamu yàlla. waaw di ko ñaan diggante bi yàlla def ci sutura. la naa ne xëy na sax loolu. fi ñu toll nii moo manqué ci àdduna waaw xam nga boo xoolee biñ ko tàmbal boo xoolee keroog bi passé wax naa ne la bu soxna si sëy sëy ci biir kër nga jël sa loxo teg ko ci jëbi nga ni allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi waat yooyu baat yu gàtt la yonent bi ne boo ko waxee jigéen fekk seen rawxaan yi juboowul soo ko ñaanee yàlla dina la ko teggil ba ngeen juboo mooy ñaan gi ñaan gi la ñuy fàtte Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah macha allah macha allah waaye dafa mel ni sànq am na kenn ku bëggoon laajte benn question. waaw dafa demee ni ok li ma bëggoon a laaj sëriñ bi. waaw kañ mi ngi noonu. ah li ma bëggoon a laaj mooy ne. Mm-hmm. ah julli nga xam ne nga pare julli xam nga dañu jël suñ kurus gi di ne subhanallah subhanallah ba pare walhamdulilah thirty three times waaw gannaa kenn koo xam ne ñu ne bu yomal xiyaama yee cëri ñuy wax waaye yow sa ne yow jiwsuloo jëluloo sa baaraam yi di ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah te yow nga jël kurus kon yow boobu du la seede déedéet ñooñu ñooñu mooy mooy ñu bees ñi di indi diine di taral di taral parce que subhanallah boo yoree kurus naan subhanallah ci baaraam nga koy defee di ñaari a daje baaraamu déy bi nga teg ci kurus gi jël baaraamu sànnukaay bi teg ci xëcc kon kay baaraam yi dina seede ah waay set loolu set na waay <laughs> ah waaw kay loolu la moo tax dañuy dañuy contre te xamuñu li ñuy def ah ma ko kii li muy wax ni kon nit ñuy salaatul faatiya mooy mooy ñu bees ñooñu rek ñu bees ñooñu dugg ci te jànguñu diine pour contour mag ñi rek waaye léegi ñoom ñi ngi yor seen kurusu nilon yooyu ñu def kii mooy yi ñuy wàññee genre montre yooyu ñu ngi yor kurus googu di ko def ñoom ci seen bopp ni jëkkër ma lii rek jërëjëf jërëjëf kurus da dimbale kurus baaqiyaatu sa am na ñoo xam ne téeméer mënuñoo def téeméer ndax da leen di jaxase ci seen loxo da leen di jaxase ah. mënuñu ko mënuñu ko lañ waroon a wax mooy baaqiyaatu saalihaatu defe ko ci loxo moo gën loolu lañ waroon a wax waaye waxuñu boo ko defee du la seede waxuñu dëgg ndax loxo bi moo téye kurus bi moo téye kurus gi nekk ci per bi beneen bi ne ngay xëcc muy daanu loolu mooy baaqiyaatu saalihaatu jeex na jeex na waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaa ba jërëjëf yaa ba sëñ Cheikh dafa mel ni que lu ñu lu ñu dese woon ci waxtu waxtu bi tënk nañu ah léegi euh, léegi macha allah maam pap pap anecdote bi ma bëggoon ci benn benn seconde rek incha allah mooy waa ji woon papam ñëw ci sallallahu alayhi wasallam poñe ko yéen mhm. Omar ne ko eh yow xale bi bàyyil xale mu ne ko bàyyiw mu ko yonent bi ko waa Omar lu xew mu ne ko xale bi gisoo ni mu def mag mi mu ne ko déet Omar bul attee noonu gis nga niko ko xale bi kay mu ñew mu niko isa lan la mu niko sam papa la mu niko ah nga poñe ko ni ba batam bi mu niko waaw parce que daf ma togn mu niko lu ngeen jotté mu ni daf ma dem ci seun ba takal ma fa yaay ci seun ba ba ñepp xam ni kooku sama yaay uddimani biñ doon wax mm-hmm. mu niko bobu man na ndax nit man bu bur man na ju xetax man na bon man ma baax ñaarel ba moy daf ma tuddé joal joal joal moy mbërëngaan mbërëng yoyu bu mm-hmm. mm-hmm. may fo ak samay bu ñema ma joal ñepp dañ may ré muni batay bobu grawul man na ut xar wat sama bop lima nakari ci mom moy jangaluma alquranul karim yonent bi ni ko xoolal ba léegi yonent bi ni ko waxul ko bayil poñe bi de fekk mi ngi poñe papa yonent bi ni papa ji yow sank nga sa aduna sank sa mm-hmm. àddunay dom ding ko layo mal xolal wax jojo Mm. kon képp ku yarul sa doom jàngaloo ko xamaloo ko ay mbokkam ëllëg yow di nga layoo ak sa doom ndekete doom ëllëg dina layoo baayam yey ko c'est parce que mm. yaru ko butalu ko yaay ju baax jàngalu ko xamalu ko ay mbokkam foofu loolu mooy anecdote bi ma bëggoon a jégat waaw incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah fa tabarakallaahu xanaa ah, xanaa ah, sina cheikh di la delluwaat rek ah. jërëjëf kaddu bi comme waxtu wi tënk nañu. waaw kàddu gi de mm. xanaa boolewaat yi ñu fi wax yépp biñ commencé ba léegi lu ci yiw ak teraanga. Mm-hmm. yàlla defal ñu ko ñu def ko ci benn enveloppe jox la ko yow nga joxal ñu ko suñu sang boobu si Ahmed yàlla na ko yàlla comme ni ko yaay Fatou Adja Fatou Keita ñaan léegi. yàlla na ko mm-hmm. yàlla may wér ak wérle fan wu gudd jaamu yàlla gu ñu nangu. wërsëg wu yaatoo yaatoo yaatu wu yàlla barkeel wu ñu sàmme suñu ngor ak suñu mm-hmm. diine. loolu nga xam ni moom la leen waxoon ni leen yóbbu utal leen sëriñ bi xorom xorom xorom soosu jot naa ci yàlla leen ci ko yàlla fay dërëm bu ci ne yàlla defal leen ko wér ak wérle fan wu gudd jaamu yàlla gu ñu nangu wërsëg wu yaato yaato yaato yàlla barkeel seen sàmm seen ngor ak seen diine loolu daal lañuy ñuy tëjee waxtaani ngeen baal ñu xaq yàlla na ko yàlla nangu wasalaamu alekum wa rahmatullahi wa barakaatu di gën a jël suñuy engagement rek di tek ci seeni engagement tay ji gam la warona fanani waye bi ngeen ma waxe lolou mani bi mo upp priorité ndax gam ga it du pees su ma jógee ak yeen man na dem ca gam ga bala muy tas bu don fanweri minute ñu gis ma xamni ñew na ci gam gi ngeen ba ñu xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah, di la ñaanal Euh, li nga fi indi ci xam yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na yàlla yokk la yokk leer bi di la gërëm di la sant si suñu suñu tur si suñu sëriñ suñu wasila amiin euh, euh, suñu Ahmed si bu suñu maam abi si bu maam si Taj Malik Si radiyallahu taala anhu mbokk yi mm, naa di leen wax di leen sant di leen gërëm it ci seen seen teewaay ci seen teewaay fii ci guddi àjjuma ci ëttu ITFA di leen fàttali rek bu leen fàttee subscribe ci suñu YouTube fa Institute Eh, di leen jox dig dajé ba jeudi bi di ñew inshallah rabbi ci spécial assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaykum assalam amna ñuy bind message message yépp jot nañ ci macha allah macha allah jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo itfa rajo itfa ànd ak yéen ci programme yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo Itfa ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Sénégal te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo Itfa ci programme yu am solo rajo Itfa di rajo askan wi leeram ya jolli na foo xool foofa baawaan rajo Itfa daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyi ti ba mukk radio Itfa radio askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة عشقا فأتيت إلى حبيبي قلب صلي على محمد my name.